ci daje bi ñu daje fii di fàttalente rek di dellu sunu xel fóotaat sunu xol delloo sunu bopp ci yàlla fàttali ko ci nu dund moom nu sañal nu lu ne digal nu tere nu te indi nu fi fi ñu jaarloo di ko jéem a xam tey def képp sama kàttan lu nan ci topp ndigal muy lu jaar daje di lu jaar jóge dëkk dem ci dëkk ngir waxtaan suñ borom dafa ne ci alquran muy waxanteeg yonentam bi lu dëkkir fa inna zikra tanfau muminin da ngay fàttali jaam ñi seen borom seen ëllëg ndax fàttali kat dana jëriñ ñu gëm bu loolu nag dañ ma waxoon ne ma tàmbali def exposé bu gàtt ci ñeent fukki minute ak juróom ci mbirum tawxid danaa nga am ñu dellu si ne tawxid xóot na lool te ñeent fukki minute ak juróom gàtt na te laaj na niw bu xaw a kawe ngir ñi koy déglu mën ko dégg mën cee jëriñu laaj na ñaar laaj na ñu laaj tey jamono bu xaw a yàgg ñu ne nag boo ko tàmbalee te àggul mën nañ ko bañ a dégg loolu ci lu jëriñ ko wax ñu ne nag kon ñu waxtaan ci cadre l'islam ci cadre murid ma ne ba tey loolu baax lépp ci biir tawxid la boo xam ne tawxid ñaari xaaj la tawxidul am ak ak tawxidul xaas kon li ñu bëgg a waxtaane ci tawxidul xaas la bokk xam ngeen ne tawxidul am tawxid mooy lan wéetal yàlla wéetal yàlla mooy lan nga xam na mu bëggee ak jullit fase ko ci moom ci moom ci ay yonentam ci ay meloom ci ay ay turam ci ay malaayikaam ci li mu bind mu am ay tur yu rafet moom am ay melo yu sell di buur di di cosaan lépp tam amul tàmbali te du am yemukaay li doomu adama ñu ne ci àdduna te suñ boroom si ñeenteeg moom pacte pacte yi di ca ëggal mu am allo joo xam ne ba ba saa di taxaw ba way taxee ñu dugg seen kër bi àjjana ñu ci des dugg fa ñu war a dugg li fi nekk yépp tëral dina ko ca allo def jaam bi war a texe jaam bi war a sonn jaam bi war a noppalu jaam bi mu tànn di ko gënal ci jaam ñi ak jaam ñi di jaar su mu dugg ñu jaar ci ñëpp di lu mu gënal loolu naka lay mën a amee te suñu boroom war a àtte ëllëg jaam ñi kenn ku ci nekk te li nga jëfoon te nit balay yeewoo yool ci jëfam ju rafet na fekk na moo ko def ci coobareem bala yeewoo mbugal ci jëfam ju ñaaw na fekk na moo ko def ci coobareem ndax sharia di daf noo xamal ne lépp lu def te mënu ko yàlla jàppewuñu ko ndax laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusahaa suñu boroom da ci togg benn jaam lu dul la mu mën rek la ko sant mu def ko jaam bi nga xam ne nag fàttalente war na ko ak jataay yoo xam ne day jëme si li ci kanamam ndax gis nga ci kanamam koo xam ne du jaar mukk te dana ko dikkal loolu ci lu gën a itteel doomu aadama jëm na ci kër goo xam ne xamagul kër ga gan la yoon wi balay àgg ci dugg ci këram lu ne ngi fi diggante bi muy dund ci àdduna dund bu gàtt ay soxla war ko ci mu am ci ay liggéey ak i aajo ak i diggaale nit ñi ak fàgg lu mu dundee fu mu dëkk ak lu mu sol ak lu ko faj bu tawatee te li muy dund gàtt ñu bëgg cee fàggu kër ëllëg ga te du fa am lu dul leen jëfoon li ëpp ci xel mi kon war a féete ci wan façon jëf yi lay jëfe ba dund boobu nga xam ne buñ fa demee duñ fa jóg mukk ma am fa lu ma doy nan laa war a jëfe ba man ñi nga xam ne ñaari malaayika tal ci sama mbagg mi lu ma wax ñu dund ko lu ma def ñu dund ko penc ba jaam ñi ma amee loolu xaq yépp taxaw di ma ko fay te bu keroog rek kenn du bale ndax kenn amul lu la doy kenn xamul foo jëm jan jëf laa war a jëf lan laa war a jëfe li mu war a nekk ci adduna ndax bu keroogee ma am jàmm bu keroogee nga xam ne ñu bari daañu màq bi ñu naan ñu bari daañu leen jiital di leen dëkkatal ndax jëf ji mu jëfoon ndax xaq yi ñu amee woon nan laa war a def kon bu keroogee ba bokk ci ñi nga xam ne suñ borom dana leen defal jàmm mu gis ko ci ñu gis alquran ñu ngi leen misaale gis ko mu tiis lool mu gis ni ñu ngi misaale taxawaay ba yàggaay ba mu gis lu jiitu loolu giraayu bàmmeel nga xam ne daf ci lu fekk ku dul la mu jëfoon fala xàq yi du tàmbalee xàq yi ñuy toppante ci biir bàmmeel lay tàmbalee xam ngeen ne jëfi doomu aadama dafa tàmbalee gis ko lu jiitu bakkanam juróom fu sukkuraat tàmbalee la koy tàmbalee gis xam ngeen ne am na jëf yoo xam ne melay jaay ñëngoor lay amee di màtt am na jëf yoo xam ne melay xalis fara yu tàkk lay doon am na jëf yoo xam ne day yàkkam ci boromam ba bu ñu ko yëkkatee jëme ci bàmmeel bi mu di ko alaw ci foofu naka noonu la am na jëf yoo xam ne dana waral borom bu ñu dee jël si roo xam cérémonie bi gën a rafet ci àdduna malaayika yi dañuy sañ sa sañ si gën a rafet fleur yi gën a rafet parce yi gën a neex bu ñuy xëcc bu roo am mu mel ne ku gëmmentu di nelaw nelaw yooyu ci ngëmmentu bi gën a gën a gëmmentu ñu di la tere nelaw tele nelaw ba bàyyi la nag nga fas yéene nelaw ni muy neexee noonu la rocc ko am di neex nga xam ne roo gi malaayika yi ko tëyee roo gi ñuy gën a leer jant bi yoon bi ñu koy jaarale diggante ñaari rang yi malaayika yoo xam ne malaayika yi yóbbu lañ ba muy àgg ci bàmmeel ba àggee ci bàmmeel ñu teeru ko teeru bu gën a rafet teral ko yaatal bàmmeel ba ba su xoolee du seen fa mu yem ñu fab téo samp ko ca àjjana mu bët si ci bàmmeel bi li yonente bi salaa sallam waxoon ne jullit bu deewee jot genn wàll cëram ci àjjana mooy mu wax ne ruux yi way texe ñi ñu ngi ci jox ci picc yu wert yoo xam ne day far ca dëri àjjana bu ngoon jotee ñu dellu ca peeri aar ci seeni tàgg yoo xam ne tàgg yi wurus ak jamaa la wala mu gën a rafet misaal la rek kon bu xéewal amee buggal am te lépp gannaaw yéen mën a yàlla aju ci jëfi nit ki ak yéeneen te nit ki nekk fii nga xam ne jëmoo gifu àddugul fañ koy faye mu war di delloo ci xelam jamono bu nekk jotaay bu mel ne jotaay bii borom xam-xam yi wax nañu ne jaar na jóge ci dëkk di dox at ngir fekk ko ndax boo fa toogee malaayka yi doon bind say bàkkaar téye seeni xalima dootuñu bind yiy bind toyaa ba continuer di bind rek jotaay yu mel ni moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne bu ngeen rombatee dëri àjjana na ngeen far na ngeen lekk naan te bëgg wane kàddu bi ci nit dégg nga xam ne li koy fàttali ëllëg la day far xeeti bàkkaar ci yi mu jëfoon xam ngeen ne ku war a yoru yan boo xam ne dana tol ne imboobu digéeri luñ ca wàññi du ko xeet te gannaaw kàddu yoo xam ne ñi koy waxtaane ak ñi koy déglu jullit yu seen xol dëggu la ngir yàlla ak yonent bi rekk yëkkati leen ba ñu daje foofa di diglu kàddu yooyu day fax bàkkaar ba mu set nga xam ne lay tax nit bu fa jógee la koy defaat te am na riwaayaat yu wax tax ne dana fa jóge fukki fan ak juróom-ñett dootuñu ko bindal bàkkaar fees mu ngi fàttali ko jotaay ba mu ngi fàttali ko lenn ca lañ waxoon ca jotaay ba benn lu muy fas yéene jëfe nag wala loo xam ne lii daf koy xemmem loo lislaam ñun jullit ñi ñun taalibe yi lu war a dellu siwaat suñu xel ci wax gi ñu askani Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ne neen taalibe mi ñeen xaaj ñu tey rek lañ ko doon waxtaane waxtaane ko tey waxtaane ko démb ki aju ci moom te jaamu yàlla liggéeyal ko ki aju ci moom jaamu yàlla te liggéeyal ko ki aju ci moom liggéeyal ko te jaamoo yàlla ki aju ci moom te jaamoo yàlla liggéeyal kenn ku ci nekk dal ci am yaakaar naa ne ku njëkk ci rek moom la mu def gën a bëgg a doon mooy ki aju ci moom te jaamu yàlla liggéeyal nga xam ne dana dem àjjana te kenn du ko xisaab yaakaar naa ne jullit ñëpp jullit bu ne bëgg ngaa dem àjjana te duñu la xisaab ndax xisaab lu tiit la buñ ñu xamale fii lii tax ñuy dem àjjana te kenn du ko xisaab am naa yaakaar ci ne kon bu ñu amee xel daañu góorgóorlu ñu mën ca loola le ak ñaareel bi muy ci aju ci moom muy dëgg mu jaamu yàlla te liggéeyal ko mu ne mu liggéey mu liggéeyal ko te jaamuwul yàlla dina dem àjjana waaye daañu ko xisaab bëgguma doon kooka xisaab lu bàkkaar toll rek la xisaab bi toll xam ngeen ne tuwat day léeg-léeg ñu def ci ordinal mooy su gàtt yee dëgëre te bàkkaar am na ci yoo xam ne noonu lay dëgëre gi ci xol te am na lu ñuy xisaab te du bàkkaar wala boog du bàkkaar bi ñuy tuddee mooy moo di yu bari yu naqaree waxtandiku moo di doomu aadama lépp lu mu gëm ba loolu bëgg gëm ko bëgg dox digganteem ak yàlla waxtu wi faatu loolu gën a tibb ci adduna ndax mooy gaa ki ko ki ko sababal coono li nga gënoon a bëgg ci àdduna moom ngay gën a sib te nit ki bu roox ngay wàcc ko ulama yi wax nañ ne daf mel ne film buy déroulé li tàmbali fu nga juddoo yow da nga njëkk a yow ba foofu nga toll lépp da ngay jàllal ko moom lépp da ngay jàllal ko xam nga ne bàkkaar bu nit def day nekk tâche ci xolam te lépp lu nit bëgg te du yàlla du ñu koy jëmale ci yàlla kiiraay lay dox digganteem ak yàlla xam ngeen ne bu ci sukuraat bu ruu di commencé génn lépp lu nit ki bëggoon ci àdduna daf koy xëcc jëmee ci àdduna malaaka bi xëcc bëgg a génne jëmee mala ulla ala xëccoo boobu dana metti mooy waral sukuraat su metti xam ngeen ne nit ki gën a aj xolam ci àdduna gën a bari bëgg-bëgg ci àdduna moom la génn room gën a tiit lu ko waral su ma dëkkee fii sama alal ji ma am jëpp ne fi ma bëgg ko lool ba sama xol bi aji ci bu ma fu ma génn sama xel ne ci buñ ma fiy jëlee ma di ko fi wàcc xam ngeen ne dana tiit xam ngeen ne ki ñuy nangul ñaari gëm ki ñuy nangul junnee ko gën a am naqar ki ñuy nangul junni ki ñuy nangul million ko ëpp naqar xam ngeen ne ki yenu benn kilo ki yenu fukki kilo ko gën a diis kon nag adduna loo gën a aje sa xol ci yàlla duñ ko fàttali ko ëllëg duñ ko amee tiit ak njàqare yonente bi salaa sallam nee na suñ borom du boole ñaari tiit mukk ci jaam du boole ñaari njàqare ci jaam fekk sa ëllëg jàqaloon na la rek bu yemal xeyamee doo am njàqare bu ne sa ëllëg tiitale rek bu yemal xeyamee doo am am tiit waaye boo ko fàttee faale woo amuloo ci benn soxla topp ci sa bànneex adduna rek lay jëriñoo fii ak lay jëriñ léegi bu ëllëgee bu roo di tàggoog yaam tàggoo ba dana metti boo demee ci bàmmeel dañ fa fekk loola bu yema xeam bu jaan ñi taxawee da nga am yenn bu gis gën booy jéggi siraat da nga am lu la diisal ba tey jaam bi ne ci adduna am yu ko war ci ay moroomam di ay xaq yu ñuy laajante ëllëg bokk na ci nga xamal benn jaam la koy jëriñ te waxuma ko ko mu daal la wóor ne képp ku lay digal loo xam ne jëmewula ci yàlla war na la te lor na la war na la te lor na la te bi bu lay wax ëllëg it da nga lor waaye moom it dana loru ndax da nga koy yey kon wal asri yi ñu doon tari léegi inna l'insana la fi xusrin suñ borom nee na doomu aadama bi ci biir perte goo xam ne la ko cay génne jëfam rek ak yéenam lay doon loolu mooy illa lazina amanu wa amilu salihaati te al iman ak amal saalix dañuy du gëm yàlla dëgg dëgg gëm daf li nga mën lépp ci jaamu yàlla ak waxtandiko lu bon dalil ndax bi mu ne illa lazina amanu wa amilu saalihaati daf cee teg wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bis sabri muy loo xam ne li ñu nekk bokk na ci la ñuy dénkante ci muñ la ñuy dénkante ci dëgg kenn ku nekk sa mbokkum jullit amee nga ko xaqi bu newul ci dëgg wax ko ko ndax mu ngi ci musiba te comme rek génne ci musiba te génne woo ko ca bu ëllëgee dana la topp xaq boo ko ca génnee nag doo ko amel xaq te tuyaa ko jum jëfaat gannaaw gi da nga ca am déggeen léegi li sëñ Murtala Amar wax ñu waxi Cheikh Ahmadul Moustapha di l'islam rek joxe amul taalibe l'islam mooy iman ak islam ak ihsan iman ak islam ak ihsan di ñett yoo xam ne mënuñoo jàppali ko loo ci matal la ca des matul muy yàqu-yàqu boo xam ne ëllëg dana la tëra defar ñaari ñett yooyu yëpp nag ànd na ci l'islam di rafet ak ab taalibe ndax ak ab taalibe mooy ihsan luy ihsan mu gëm ko yàlla dëgg dëgg gëm sa cër yii yi la ci yàlla sant yaa ngi koy jëfe yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi génne asaka ci li la yàlla wërsëgal yaa ngi aji màkk ci boo ko mënee li la war yëpp yaa ngi koy def rafetal ko nag mu des rafetal ko ndax jëf ji mu nangu mooy li gën a jafe ndax jëf mu gën a yomb rafetal jëf rafetal jëf mooy lan rafetal yéene rafetal yéene yéene moo ëpp doole jëf ndax wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura tegte la ne doomu aadama mën na xéwloo li mu jëfoon lépp tuyaaba ga mën na ko xéwloo ci bàmmeel ba mu jeex tuyaaba gi li mu jëfoon bu boobaa lu koy sës yéene yéen la mu jeex mu moom day ñëw ba faaw kon ñu daal di xam ne gannaaw ñun lu muy jëli ëllëg rek fii dañ koy defee mooy li ñuy wax naan lépp lu la waay gañee ëllëg dañ koy def yaa ngi jànloo moom ñu dem ci jamono boo xam ne jëf ju baax jafe na ndax yéene ju baax moo jafe ndax xol bu set moo jafe li ko waral mooy xol bu bëgg yàlla moo ñëw ndax yàq yi bari lool jullit ñoom kon war fu ñu toll di diisoo di di di digale diglente lu baax di terente lu bon muy otowaasoo bi xaq otowaasoo bi sabri jullit kon suñu borom dafa def ci booloo barke ndajeel jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn mbindeef buy wéy nee na benn seytaane la ñaar ñuy dem ñaari seytaane la ñetti jullit ñuy dem mboolum jullit la ñoom ñi iyaatu wal jamaa fa innama dibu yaakulu ashaat al mutaxallifa da ngeen di def seen bopp benn te ngeen di ànd di leen ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd jëm fi jub ndax till gi sax muy lekk ci jur gi da yëfe liggéey wala jàpp lekk ko waaye ñi nga xam ne dañoo boole seen bopp benn jullit yi daje jullit bu nekk xol nga am ñi ci seen xol set ñooy yóbbaale ñi seen xol setul ndax xol bu set dafa mel ne làmp buy leeral borom ilmu la bi nii sax bu wax bu wax ci mbooloo bu fekkee ne borom xol yu bañ yu gàntoo nga fa li bu wax daf koy lënt du leer du jub te mel na xel bi day fatt bu fekkee nag xol yu jub rek fa nekk ilham bi day dugg si suñ borom di ko xamal lim ko bëgg a xamal lépp njariñ la ma sëkk njariñ boo dem ko fa toogoon mooy jotaay yi nga yéen waxoon léegi bu fekkente ne dama daje boole suñuy xol di jullit kese mu am yéene ju rafet am yéene mucc mu waxtaane li nga xam ne moo ñuy musal ëllëg ku ci am kàttanu jëfe ko su ndoom dana la booleel fukki tuyaaba ashru am saalihaat kon xam ne am nga yéene boo fi jógee jëfe ko jóg yàlla mayu la kàttan nga am nga leneen loo xam ne lii moo la féew yi wala nga amoon yeneen yoo xam ne moo ëpp doole sa kàttanu ngëm bu keroogee bu boobaa yéen li nga yéere woon jëfe ko te amuloo kàttan gi da nga am juróomi tuyaaba jullit nag li nga xam ne moom mooy fi mu war a bàyyi xolam toujours mooy ci yàlla lu yàlla def ci moom na ko neex mooy maqamam riba te fekk ne am na benn jëndi jamono bi jullit bi nga xam ne yàlla dafa leen wërsëgal wërsëg bu bari ñu am naqar ndax ne ñi yàlla wërsëgal daal gañe nañ leen te daañu leen gañe adduna ak alaxira ñu ne nag kon nañu seet délégation boo xam ne daanu ko yónni ca yonent ba ndax daal suñu jàqare lii dañ mu leeralal ñu ndax ñooñu dañ ñu fas yéene gën adduna ak alaxira wala ñun lii nu nekk mu duñ ñàkk dañ ko wax ñu am tuyaaba ju doon ne ji ñu am ndax buñ xamul kat lan lañ war a jëfe ñaari ñu ko dañ ñu dal ci adduna ak alaxira dem ne leen bu ngeen demee ñu leen yonante bi sallallahu alayhi wa sallam way ñàkk ñu ñu yëngu ci yow dañ la dañ xalaat ne way woomal ñi raw nañu adduna raw na alaxira ndax bu lislaam soxlaa ñu fab seen alal dimbalee ko lislaam bu ñu dee xare ñu jënd jaas yi di indi ak xeej yi ñooy indi yóbbal bi ñooy jënd fas yi bu ñu dee aji màkk ñoo am man mënu dem ñu amul dara lu bu ñu gisee miskin ñoo ko mën a tax ñoo ko mën a dimbali ñu amul ñu mu defee dara ci yooyu boo demee bu ngeen demee ngeen waxal lu yonent bi loolu la yooyu ñàkk ñi ñu ñu yebal bu ñu demee wax loolu yonent loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen la miskin yi yéen ci ñun ci man ñu ne ko waaw ne bu ñu waxal leen na way ñàkk gis ne leen suñu borom jox na leen ñett ci ngëneel yoo xam ne joxu ko way woomane yi ñett ngëneel yi benn bi moo di bu yomal qiyaamee way ñàkk ñi daa di dugg àjjana juróom-ñaar fukki nawet way woomane yi nekk ci xisaab benn ñaareel bi bu ñu bokkee dugg àjjana way woomal ñi bu ñuy seen way ñàkk ñi dañuy seen dina seen li ñuy seen biddiw yi ci guddi asamaan ci ci ci guddi ci asamaan bu guddee ni mu ñu tiime ñetteel bi bu ñu bokkee ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar aji woomal ji dana ko wax téeméeri yoon sooga yam la tuyaa baax aji ñàkk ji ko wax benn yoon loolu dafa wane ne ñoom ñëpp kenn ku ci ne am nga jagle bu sa morom amul aji ñàkk ji kat ñetti martaba la am benn mu bokk ci fuqara u sabiruuna yi mooy martaba bi gën a suufe wala mu bokk ci al fuqara u raabuuna aji am ji benn mu bokk ci al axniyaa u al xaawuuna wala mu bokk ci al axniyaa u as sabiruuna wala mu bokk ci al axniyaa u shakiruuna kon ku ci gëm sa morom yaa ngi ko gën a jox xol ba waaye kenn ku ci nekk yërmande yàlla xëpp na la ko ba mu bari alfuqara usaabiroona yi mooy ñi ma waxoon ñi ñàkk te muñ muñ nan lay demee dama mu wóor la ne lii kat suñu borom tabaraka wa taala moo ko def nga muñ ko muñ bu rafet lim la sant lépp nga di ko def na mu waree xam ne lii ma la def kat dafa gën ci yow ndax mën na am bu fekkoonte ne joxoon na la alal nga bew wala cant ga ca war doo ko mën wala xàq ga ca war doo ko génne wala nga defe ne yaa gën koo xam ne kii gënuloo ko te moo la gën mu tànnal la ñàkk gi nga xam ne moo gën ci yow nga xam loolu le muñ ko bu keroogee suñ ko wax ne ci masaali ko jinaan ne képp ku ñu musibaaloon ci addina bu keroogee buñ lay fay kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko wàññi dañ la koy sottil rek ñu ahlul balaa alaykum hum misaan wa alaykum sharru lahum diwaan te bu keroogee téere yi nga xam ne day rot ñii mu rot ci seen gannaaw ñii mu rot ci seen ndeyjoor ñii ci seen càmmoñ nga xam ne li ñu jëfoon lépp luñ ci bind bu keroogee ñoom ñoom kenn du ubbi seen téere di seet lu bon ak lu baax dañ leen di yebal àjjana rek ca ba mu gënee metti ñëpp gën a soxla àjjana loolu nag bu keroogee képp koo xam ne ci amul nga aafee fii ci àddina wala nga am bànneex da nga ngéejoo sa sa yaram yi ñu leen ko sifa ci àddina bu keroog ba bu keroogee nga bokk ci ñoo ñee al fuqara aw saabira ngay ñëw moom loolu al axniya aw shakira yi ñoo leen féete kaw mooy ñi nga xam ne yàlla daf leen xéewal ba noppi ñu sant ko sant yàlla ci xéewal mooy lan lan ndax ak sabru dafa am ay daraja ci tolluwaay bépp bu doomu aadama toll alhamdulilah wu shakiroona yi ñoo ëpp daraja fuqaraawu saabiroona yi ma waxoon sànq ndax ñoom li ñu waxoon sànq ni lépp yàlla jàpp ni leen leen ko ñu mën koo génn ci seen alal xam ngeen ne sëriñ bi wax na ci masaalifa jinaan ne suñu borom dina dugal yow ma xiyaam àjjana ci benn tibub meññet wala tibub dugub wala ceeb ñetti nit góor gi moom këram liggéey joxe dépense ñu jënd ci dugub wala ceeb wala benn ñam bu mu doon soxna si nga xam ne bi yalwaankat bi ñëwee moo sant mbindaan ñu ne ko demal tibb sarax kii mu wër na la yi itam ñoom it daañu leen xisaab lu dul ñu aju ci sëriñ Touba jaamu yàlla ba noppi liggéeyal ko ni ñu ko waxee ne daañu dugg àjjana kenn duñu xisaab boo bokkul ci ñooñu mu wóor la ne sa alal ji daañu la xisaab ëllëg système bu ci nekk da nga wax nan ko amee fu mu jóge ak bi ñu ko amee foo ko dugal moo ci jëfee ndax génn nga ci xàq yàlla wala déet xàq yàlla bu mag benn asaka ñaareel bi sa xàq waajur ñetteel bi sa xàq dëkkandoo addina ñu wax facultatif la moo ëpp tuyaaba waaye ci sa coobare la aju nekkul loo xam ne bu ëllëgee ñu laaj la ko waaye nag boo ko defee mu sole la ndax شاعر مثلا أقدم أستاذي على حق والدي ولو كان لي في الوالد البر واللطف فهذا مراد الروح والروح جوهر وهذا مراد الجسم وهو الوسيط sama sëriñ laa teg ci sama kaw waajur li may yërëm yërëm yërëm sama waajur ak li ma koy bëgg bëgg ak li ma xam xam xàq ji ma ko ameel ndax ba ma juree yar ma aar ma dundal ma wadd ma sang ma defal ma lépp lu aajowoo lu ma aajowoo muy xaq joo xam ne mënu ma ko koo fay li may xam-xam xaq jooju sama xaq sëriñ laa teg ci kaw ci kaw xaq ñu ne ko lu tax mu ne fa hada murabbi ruuxi wa ruuxu jawharu wa hada murabbi jismi wa wala suf mu ne kii yaram bi doon la yar yaram bi la doon toppatoo kii ruu bi la doon yar moom la doon toppatoo ngir am texal ëllëg kii li mu doon yar ñun na nga sagar wu ëmb bi kii doon yar lii sagar mi di ëmb wurus bi noonu la yaram bi ëmbe roo gi kii doon yar kii yar roo gi moo lay jox fàggu texe goo xam ne sa texe bopp la ak sa texe waajur ak sa texe xarit ak texe képp ko aju ci yow mu ne kooku laa jiital ci ki nga xam ne moo yar xaqi waajur nag lu war la ndax mu mel ne bor xam nga bor buñ la rey boo doon jihaar ci yoon yàlla ñu rey la yàlla duggalaat la ju rey la yàlla dugg la ba muy ñetti yoon doo bëgg àjjana mu ko tafayuloo bor ba xaq yoon bi noonu la demee bor la leeral du bor yaa ko defal sa bopp ngir bëgg mucc ëllëg waaye du luñ lay laaj ëllëg xaq yoon bi nag dañ la koy laaj ndax mën na laa koy ëllëg na la koy waaye nag bu fekkee ne liggéeyal nga murab bi roox bi ba am ngërëmam nga am ko ëllëg dootoo amal xaq moo lay amal xaq ndax xam nga kenn mënu koo fay kenn فهذا مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم وهو الوسيط فوق الأغنياء الشاكرون وي ومن يغا خامن دانيو سام سين بروم سي سين علال وي ني ييكتي تي ديف سي يونو يالا ييكتي تي جوخ خاريت يالا ييكتي تي ديمبلي فو نيو دوري اك مسكين اك تمرانك كو امول يوتي سين جبا لو لا وار سو نيت دي ديف كو te tuukare wuñ ca damu wuñ ca wanu wuñ ca ñooñu ñooy al ambiya aw saakiruna ñoo ëpp daraja fuqaraaw saakiruna yi ma waxoon waaye nag ba tey ñoom it am na yeneen xeeti fuqaraaw yu leen kaw féete kaw mooy al fuqaraaw as saakiruna waaye bari muy àgg ci al fuqaraaw saakiruna al ambiya aw saakiruna yooyu yeneen agniya yi seen biir ñu fexe ñu soxla ñu waxtaane seen mbir waaye yeneen fuqara way ñàkk yi nga xam ne ñoo féete kaw itam ñooñu mooy al agniya u shakir la mu maqaama mu kawe la si biir xool ñu ca ñu gën a bari ci ñi ca ànd dama di da ngaa ñàkk ba noppi sant sa borom nga def sant sa borom nga xam ne suñu borom bii la moom bu ko neexoon mu dagg sa cër yépp gumbal la tëxal la luwal la lafañal la bañ laa wërsëgal dara teg la feebar boo xam ne doo am jàmm mukk ba yomal xiyaam mu dugal la safar mu sant sa dara du ko ci fekk te mu doon lu ñaaw ci moom nga seet ne benn musiba bi dong la ma teg wala ñàkk bi dong la ma teg wala laabo bi dong la ma teg nga sant ko ndax li mu mën lim la mënoon a teg lu ko ëpp te tegul ko nga sant ko ngir musiba moomu la teg mënoon ci sa adduna la ko te mënoon la ko teg ci sa diine ngay naan sàngara di moy te doo julli doo woor te bari na ñu mu ko teg lu ñàkk la ko teg fekk la loo xam ne bii dafay yokk say tuyaaba ëllëg rek mën na nekk sababu fexe ëllëg nga sant ko fekk bu gën a mag kooku mooy al fuqara u shakiruna ñu ñàkk te sant yàlla ñeneen ci muur dañoo sant boole ci ñoom ñoo féete ko ñoom la tax sant li ñu waxee ñett ngeen yooyu nga xam ne moom la ñu gën way am ni fuqara u al fuqara u shakiruna yooyu ñoo tax ñuy wax kon am na gàttantal boo xam ne moo nekk ci biir doomu aadama bi nekk ci àddina day xëgul dañ ne daanaka mbir mi ngi ci loxoom bu ko soobee du texe bu bëgg a texe du texe mooy li sallallahu alayhi wasallam wax ne àjjana kat ki ci bëgg a demee cay dem safara yi ki ci bëgg a dem moo cay dem ki bëgg a dem àjjana mooy kan mooy ki cay fexee dem ki bëgg a dem safara mooy kan mooy ki ca fexeewu la mucc ki ca fexeewu la mucc lu dul dund ni bàyyi muy dund rek ci àdduna bu xiifee ut yu mu lekk bu maree wutal naan bu raf mu wut a noddu wut fu mu dëkk topp ci ay njëriñ yu teew rek li ci des amu ci soxla mooy kii mooy yu Mustafa mooy kii wattani ci Mustafa kon suñ borom nag yërmandeem bari xeeti yërmandeem buñ ko délim du jeex mukk mukk da nga naan ana mu nekk di sàggane ba def safara suñ borom day rabbun xafurun la ndax dañ ne lawxul mahfuz xalima bi ciy bind bu ko suñ borom digalee ne ko bindal kon njëkkee tàmbali bind daf koo gaaral xeetu yonent bu nekk ni ko bindal bu ne lu may bind ndax ma bind boo xam ne képp ku jaamu yàlla ci xeet bi da nga dem àjjana képp koo xam ne ci jëf nga lu bon daal di la dugal ci kër bu bon nga mu ne ko waaw bindal loolu mu bind bu ñu agsee ci xeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bëgg duñu loolu suñu borom tëdd ko xalima bi tiit ba di lox nan nga di téeméeri at ni ko ana lan lay bind yaa rabbal izzati te borom tedd nga ci ana lu may bind mu ne ko bindal na ummatul muznibatun wa rabbun ghafurun xeet wu mar mooy waaye góor bu mën a jéggale yonente bi salaa sallam ne may nañ ma ci yërma de ñoo ma yëpp ku ngi nii fabal sa ñaari loxo yi teg ko ci baat bi dawal sa loxo ba ca genn ba bépp karaw bu ci boo ci bu ci sa loxo laal muy nit ñu baax ci ñoo xam ne ñu waroon dem safara lañu mu ne ko sama xeet yi du mag loolu mu ne ko kon bu fekkee ne sa xeet yi ñi ci waroon a dem safara tolluwul noonu na nga xam ne kon daan sàkk ñoo xam ne dama leen di bind ca bis ba ndax biñ naa ne danaa feesal safara waaye bii ma ne dana dañ dinaa feesal àjjana waaye kon dana sàkk jëmm yoo xam ne mosuñoo jaamu yàlla mosuñu koo mooy ma dugal leen ci ba mu mattali xeet ba mu mattali li nga xam ne moom laa la dikk muy li ma lay may ndax moo ne bépp yonent am nga ñaan goo xam ne bii dañ la koo gaaweel dañ koo ñaan ci adduna ñu joxal la ko teel man sama ñaan ñaan goo xam ne ñaan bu ñu nangu la yonent bu ci nekk suñu borom may na la ko nga la ñaanal nga daal di ñaan li nga dugg ci adduna loolu man sama ñaan gi dama ko nëbb ba yemal xeer mooy sama xeet lépp mucc ñu jóge ci loolu kon jullit bi ci boppam am na yaakaar benn ci yërmande suñu borom mu sàkk jaam ñoo xam ne bunt yërmande yàlla lañu ci kaw suuf nga xam ne boo defee ba dajee ñoom ñu jéggal la boo bokkee ñoom ñu jéggal la buñ la yónnee nga dem ñu jéggal la boo àndee ñoom julli ñu jéggal la boo yëkkatee dara jox leen ñu jéggal la boo leen ziyaaree kenn dootu la digal bàkkaar bu mu ne fii jóge suñu saxee dafa doon yër benn téere nga gis benn arab bu ne bind ñaari béy بيت من دكتور مثلا لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى وعلت في الجو أنوار تشتاقهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاء الأرض أمطار ويظن كأنهم لبقاء الله أمطار من أسكيت مرم أمن الجامع وخمير برب بني واتش تمك مرم يلا لكي واتش مرم تملي مايا نك بيجيك لأدي مايا بدرب بلاتي بادي nga xam ne jaww ji day leer kon yépp suñu borom ubbi ko yërmande yàlla dugg ci mu tëstaaqum kullu ardin yanziluna biha bépp suuf bépp bàqu bàqu suuf boo xam ne jëm nañ ca suuf sa daf leen di yàkkamti ñi nga xam ne suuf su dekkoor su gëj a taw soo kon noonu lay yàkkamtee taw loolu ni taw di dundale pàkk yàlla yi ci kaw suuf la ñuy dundale xol yi jaam yi فمسكتك إذا لقيته أو كنت زائره بيوم فارقك الدهر أو زاره بوضع بدا ينجون ولا زيار لين تدين بند كن دوت لا بند الباكار لا تابو باكار بخاو وانت وانت تين صلى الله عليه وسلم إذ الزيارة تلقى كل مكرومة وينتفي باللقاء الفقر والحاج زيارة جميل الزيارة ngay daje jëpp teranga joo xam ne suñu borom digg na ko ñàkk na ak gàcce daje bi nga dox dox bi nga dox ba daje ñoom ngay tàgg ñoom ba xaw suñ borom nag sàkk jaam yooyu indi leen ci kaw suuf ku daje ñoom nga fekk leen ci kaw suuf muy beneen chance boo xam ne ci yërmande yàlla la la bokk yi nga xam ne kenn mënu koo lim mu yërmande suñu borom tabaraka wa taala ci ahmadou bamba bokk ci ñi def gën a féete kaw nga xam ne nee na kullu kullu muridin bi yalwahu yasadu wa innahu min annadabu baadu bépp murid boo xam ne ci man na wéeru dana texe te ku ñu sorel la lor adduna ak alaxira mooy wajhu allazi yuhibbuni yabyaddu yawma wujuhu suada tabyaddu bis ba nga xamee ne ñi texe ñi sa borom texel rek la seen i xarkanam di leer képp koo xam ne sopp nga ma rek waxuma ku ma liggéey wala ku ma defal dara sopp nga ma rek bu keroogee sa xarkanam bi day leer nañ muy tuubaa li abdul muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiya aw bi xubbin mooy loolu la ban ñaata waxtu la ñaata dama bismillah su borom kon buntu yërmale bi nga xam ne wàcce na ko ci kaw suuf mu ubbil ko képp ku texe képp ku texe la wax ndax dafa ne laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin asqaahu mawla jiit naa suñu borom jiital na ma jiital jiital boo xam ne umtul kenn kuñ koo xam ne yàlla di mun a texee dem kon képp koo xam ne umtule jiit bi ko yàlla jiital bi ko yàlla jiital sopp nga ko mën nga am yaakaar ndax buntu yërmande yàlla la ba ko suñu borom ne waxal bu waxul woon bu yemul xeer bu la yor jaam yi ñu yey ko ndax waxtu waxal nga suñu borom tàkk nag ubbi na buntu yërmande ci kaw suuf yërëm na jaam ña dajeeg boobu wa ida saxara al ilahu unaasan li saidin fa innahum suadaaw bu sa borom ci xereñam ak ci tabeem ak ci yërmandeem ju bari tànne ay jaam yoo xam ne nar na leen yërëm judduloo leen ci jamono boo xam ne daf cay indi soppeem boo xam ne ku ko sopp texe ñooñu ne mu ñooy li ila saxaral ilahu unaasan li taibul fa innahum suadaaw borom nag tabaraka wa taala dana di faral di wax ne adduna indiwu fi dara lu sotti ba noppi loo xam ne jaam bi amu ca wàll wu war a jëf gépp xéewal bu mu indi ci àdduna gépp yërmande jëf indi ci àdduna am na lu ca aju mooy rahmatu yërmande dañ koo xare ci ñaari turu yàlla ñaar yoo xam ne bi ci nekk yàllaa ko tudd mooy arrahman ak arrahim rahman yërmande ji si ji si soqi koo dafa aajoo sabab mu li ci gën a bari ci jamono te boo ko amee cant war na ca te boo ci sant mu indi mbugal te itam mën naa dañ boo defee lu sabab dañ ga rahmatu ji génn ci rahim nag mooy yërmande joo xam ne jaxasoo wul ak mbugal jaxas amul benn charte te dara mënu koo dindi te la santaane wuñ ci ak cant suñu borom laaj ci ak cant buñ ko sant mooy rahim nag sama borom tabaraka wa taala ubbile jaam yi buntu yërmande jaam yi war nañoo xam ne buntu yërmande ngi nii ubbi ko ñu war a xam nan la ñuy jaare ca budd ba dañ ko bana daf koo bind daf koo bind di ko nit ne may buntu yërmu de sama borom tabaraka wa taala bàyyi jaam ni ñu ne ca nañ nekke woon déedéet sëriñ catégorie taalibe yi ñëw ci moom du ñu benn ay catégorie yu rawante lañu te lu ma ta xam la am na taalibe boo xam ne ba ko suñu borom bindee daf ko bindoon ci safara samtal ko gërëm ci safara ñu war ko ci ay yeew ëllëg kooku bu ñëwee ci sëriñ bi mat sëriñ lu mu wut si texe ba mu gis mbugal ba mu dem safara tàbbi àjjana kooku rek loolu lay wut si ñaareelu taalibe bi kooku suñ ci wax na ko ne ñi aju ci man ñi ci ëpp maanaam dañu waroon bu ñu ajuwoon woon ci man rek dem safara bu ñu aju woon ci keneen wala ñu bañ a aju ci kenn rek dem safara mu ne jamono yi may ñëw ci jamono bu ma ñëw woon kon wala yëpp daan dugg ci diine nasaraan daa daa ñu leen christianisé te kon ñoom ñëpp ñooy dem safara ñu war a dugg ci diine jullit islam te suñ borom moo ma ñëpp taxe xeer islam yi diine fa yokk bala min képp ku sàkk jenn diine ci bu doon jullit islam yàlla nee na du ko nangu fa yokk bala min boo fi laaxee sama xaatilam te yow ma xaar boo xam ne sa wéet gerte ñu ñooñu nga xam ne bu sëñ bi ñëw woon ñu tàbbi safara cant bu rëy war na leen li cant mu ngi tàmbalee ci nekkub jaam ñeel ka mu jëlee safara ka buddee ko jël ca safara te suñu borom sàkk jaam ñoo xam ne mën nañu yor lawxul mahfuus ba gis te seen turu taalibe ñu daal di koy far yàlla may leen sañ-sañ ñu daal di koy far loolu lu doy doy waar la daal ñu wax ci ay conférence de sëriñ bu mat sëriñ xësiin bi ñu nekk ay taalibe mu ñu mën a toll ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf kenn ku ci nekk dana nemmi ko nemmi ko sa xol ci xeetu bët bu nekk jumni yoon dañu ko jubal sëriñ di ko jox mat ko yàlla jafe la lu doy waar la lu jafe la lu tax nag kàttan suñu borom lay amee day taxaw taxawaayu yonente bi sallallahu taala wa sallam si si ngeen dindi ñu toogoon di àtte jamono lay toog xam ne bu toogee ci diiwaan ba lu wal yu am am am maqaama boo xetee ci lu dul ndigalam rek ñu tabbi la ñu selbu la ñu réusi sa ngëm taalibi bi ñu guddee gétteem ca safa di ko tàmbal àjjana mënu la fay sëriñ bi mënu koo jox xàqam mukk du jaayoon ndeyam ak baayam ak maamam ak bàjjanam yépp jox koy di ko fay mukk ko fay di ko jege li war a def kon moomul ndeyam moomul baayam moomul maamam moomul boppam na ko jox boppam ñu ko jox léppam moo tax ñu naan taalibe moomul dara boo déggee dina taalibe du moom dara dara du ko moom moom yàlla mooy sëriñ bi rek ko koy moom taalibe amul dara alalam ak bakkanam ak yeneen ak lépp lu am sëriñ bi ko moom ndax sëriñ bi defal na ko loo xam ne mënu koo fay te li ko sëriñ bi defal moo gën loolu moo ko ëpp ki waroon a dem safara ñëw bu ko àjjana na ngay fayeeti kooku mën na boo jaayee li nga am lépp jox ko it doo dem dem tufe ci magasin lu mu jógee boo koy fay ñaareelu maanaam catégorie yi taalibe yi mooy taalibe bi nga xam ne suñu borom bindal na ko ci texe ca xam ca ëllëg la ko bindoon mu war a dem àjjana lu muy fii ci sëriñ bi barke ak maqaama yu alxiyaam dina mu nga xam ne sëriñ bi rek yëkkatee yëkkatiwaay bu toll na suuf ak asamaan ci ay daraja waaye lu ci bari wi ak ci itteel ndax bi sëriñ bi ne nga xam ne dafa nekkoon di jàngale ci njëlbéenam di jàngale lislaam di jàngale alquran loolu ci suñu borom xamal ko ne mooy buntu gi yërmande yàlla ci kaw suuf bu muy ubbi ñu leen topp lu kenn mënu ko wax muy def allo yi mu daan topp yi mu daan toppal muy dongee daara yi daan jàng ñi ko ci gën a jege bu toppee ba allo ji mag ah lii day lu màgg a màgg la alxuraan suñu borom indi tabaraka wa taala ak jàng jàng ko ba wattu ko war ko gannaaw bind ko te dara yàqu jël am na solo lool waaye nag am na lu ko gën a féete kaw lu ko gën a foor kon laaj waaw loolu lan la mu ne xanaa fexe ba loolu moom kon bu xalima ngay bind ci àllo ji na muy ci ci jégg di ko dégg loolu mooy li gën a màgg waaw am na loolu mbàkke lu koy maye mu ne xanaa jémbalu joxe sa bopp boo ko sallallahu alayhi wa sallam ne rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bil birri yaram ñi la topp ci himma daan waxtaan luy himma ci aqid ahli tasawuf wala turabbihim bil birri bu leen yàlla jàng bu leen yàlla jàng na nga leen yàlla li ahli tasawuf di wax himma al himma mooy lan al himma moom la ñuy yëkkatee comme aadama maqaamam mel ne nis bu ñu laal ci suuf ni muy suufee ñu yëkkati ko ba muy dégg waxtaanu almalaw laala himma lañ koy defee himma ci la ñuy defee tërbiya ci la ñuy defee tarqiya xam ngeen ne ci xikma dañ di wax ne ñetti sëriñ yi nga xam ne ñooy xeeti sëriñ cheikhu taalim cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya cheikhu tarqiya moo tax ñuy waxtaan fii tey ci ñaareelu catégorie dongo yi mooy ki nga xam ne suñu borom bind na ko ci texe ba noppi waaye mu aajowoo sëriñ ndax texe ay daraja la nit ki mën na texe war a dem àjjana waaye dana am natt ci adduna boo xam ne dana tax dootu bëggati dara mën naa dem ba ne su ma yemoon sax dem safara te lii dañ waaye boobu dafa xam luy safara mën na lii continuer foofu ba mu nekk ci bàmmeel malaayika di ko mbugal ba saa taxaw mbugal ko mën na continuer te mu texee kat war a dem àjjana war la gis safara du dégg sax riiru safara waaye ba yomal xiyam taxawaay bi nga xam ne fii bi kaar noppi daal mu xam si ne alfa sanati juróom fukki junni ak la ñuy taxaw ci jant boo xam ne dañ ko xëcc ba muy laal bopp yi nit ñi yiwul nit ñi di di di xet ñiy xuuf ci seen i ñaq ñiy xuuf ci seen ñaq ba ci seen i nopp ñiy xuuf ba ci seen baat ñiy xuuf ba ci seen ndigg ñiy xuuf ba ci seen i wóor nit ñi mel ne bonetu almet boobu ni ni doom yi feese ni ñuy tënjaloo ñu mel ko ci bis taxawaay ba ci suuf ku tànn ñaay yi weex tànn kenn amul foolaaku amul xóot xóot amul fokk amul garab amul ëkk amul dara juróom juróom fukki junni ak ñuy taxaw su borom faale wu leen du leen tudd du leen taal jant bi di leen lakk kenn ku nekk jàpp ba xamatoo foo toll xam ne jaam yi daañu leen yéeg dugg safara te te leen dugal ñuy dañ ndax xamaguñu luy safara safara ñu jéngi ko juróom ñaar fukki junni caar yoo xam ne benn anu benn benn jaaro bu ci nekk téeméeri junni seytaane yoo xam ne kenn ku ci nekk mën nga ne ca suuf si di ko tantamal ba mu neex la nga sànni ko kenn ku ci nekk sa kattan may na la loolu ñu juróom-ñaar fukki junni ci ñoom téye ci benn xarfa bu nekk maanaam benn jaaro bu nekk ci ceen yooyu ñu ñu yëgle safara bu safara jàlloo bis pénc ba parce que ba nga xam ne ci la jaam ñi to taxaw di nekk àtte bi nga xam ne safara kattan googu mu am am mer moomu mu mer ngir noonu yàlla yi bëgg a dajee ñëw ndax bis bi ko suñu borom doon dig mu mel ne fonkal moomu xiis ñu jox ko ci bub ceeb xam nga loolu la bëgg a def jaam yi mu mer ba seetaan yooyu ak mënatuñ ko téye mu rëcc xam ne bu keroog bis bi ci waa Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rek a koy téye mu ñu ci mbéy yoo xam suñu borom ne ko demal jàpp jaam boobu nga xam ne fa gune ba jub si jaam yi nga xam ne keroog jaam bu yàlla bindoo rek tiit nga yonent yàlla ibrahima alayhi salaatu wasalaam nga xam ne mooy xarit suñu borom keroog tiit ba fàtte ismaïl fàtte isxaq yonent yàlla isa tiit ba fàtte mariam musa tiit ba fàtte haruna ñoom ñëpp kenn ku ci nekk laxatu ci pérérance di laxu doomu aadama yi ku ci nekk këpp këpp sa kanam ci suuf gëm fatu wus ndax tiit xamatoo foo nekk bu keroog loolu meewu zahir la woo xam ne jaam yi daan ci teg seen bët bi gis kenn ku nekk nabbu suñu borom ak tiitu bés pénc ba ak nabbu di ko jël ci kanam waaye yàlla bi ko salaam salaam nee na taxawaayu saa ci aji gëm dëgg julli ñaari rakka wala julli ñeenti rakka wala ñetti rakka bu gën a metti gën koo tiis kon xam ngeen ne yërma ne ci biir yërma ne nag ci bis boobu la koy maye yërma ne yàlla keroog lu koy maye bis boobu keroog ñi ànd ak seen sago di xalaat ñeneen ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy siddiqoona yi ak aarifoona billahi ak aqtaab yi anbiyaaw ak mursaloona yi anbiyaaw ak mursaloona yi ñi ci gën a kawe keroog daañu amul tiit ci zahir boo xam ne doomu aadama yi dana jàlloog loola ba amul tiit ñoo ñoom ñun kenn ku ci nekk mu di keroog ba suñu borom gëddee yonte yàlla yesaane ko an taqulta linnaasi taxiduuni wa ummiya ilaa ilaahin min duunillah mu ne qaala subhaanaka maa yakunu li an aquula maa laysa li bi haqqin in tubdu llaaha faqad alimtahu تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيب ñi nga xam ne borom daraja yi nga xam ne bis boobee rek moo nekk ci seen xar ci seen ci seen kanam seen diggante ñaari bët bis boobee rek lañuy ker nga xam ne bu keroogee lépp lu waay amoon ci waajtaay keroog mooy bis puugal bi mooy yom a taxaa bu ni keroog la ñuy xam ku gën sa morom keroog la ñuy xam ku ëpp sa morom daraja keroog mooy yom a taxaa bu ni keroog mooy yow ma tanaa di keroog mooy yow ma nadaam keroog mooy yow ma xasrati yow ma tanaa di mooy daan bisu waatante ba malaaka yi di gën di jàng di woo borom bàkkaar yi jëmaleen ca safaan ba ummarul awliyaaw yëpp ak anbiyaaw yëpp ak mursaloon yëpp moo dem ku ci nekk waajtaay woo amoon ak solataat boo amoon yaa ngi ko nëpp ngir bis boobee ñaareelu catégorie taalibe bi bis boobee rek teg ci kanamam borom yëgal ko ci lu mu yëg ci xolam ne aji texe la ba noppi waaye aajo woon loolu la muy wut ko may dara ci bis boobee ba bis boobee bu keroogee mu mën a xëcc ay jaam yoo xam ne safara yeyoon na leen dugal leen sa ajina kooku mooy ñaareelu taalibe yi ñetteelu taalibe yi ñetteelu taalibe bi yu néew la mën na bañ a am mën na am mën na bañ a am mën na mën na benn taalibe rek mën na bañ di benn mën na ñaar mooy taalibe bi nga xam ne mi ngi xool fi sëriñ bi toog mu nekk ko xañ jàmm nga xam ne bu sëriñ bi ñëwoon mu àtte jamono bi mu nekk sëriñ bi leeru sëriñ bi bémpante ko ba basiraam ci sëtul dara mu xam ne ku ëpp ëpp daraja taxaw na nga tax ci moom ñettabal ko nag ba fu mu tegee tànk mu teg fa tànkam bu fekkee ne sëriñ bi moo tubbul xaw bi àtte jamono ji moom mooy wakil bi al wakil mooy ki nga xam ne boo ko duggee ne riis rek mooy yéeg al imamaan yi ci yi yi toppoon ci ci gannaawam kenn ci ñoom mooy taxaw fa mu taxawoon moom it ñaari imaam yooyu kenn ci awtaat yi nga xam ne ñeent la ñu doon la ñuy tànn ba ci seeti ba mu taxaw foofu awtaat yooyu bu manqué kenn ci abdaal yi nga xam ne juróom-ñaar la ñu doon la ñuy fab mu taxaw wóotu ci kenn ci awtaat yooyu bu ko defee ndox baaw yi ñu ci baaw yéen nga xam ne si diqoon yi bàyyi nañu ak aarifoon yi ñu nga taxaw ci gannaaw ñu dëgg ñëpp waaw kon nag ñaare xam nga ci exposé moom li ngay mën dee rek lu ñëw sa xel nga wax loo xam waaye amul plan amul dara bindu may dara
kon ñu jëm ci li gën a am solo moo di laaj yi ñu settantal ndax laaj yi moo am ñu mu waxtaan yi ngeen teg seen xel xóotal ko bu dee ci luñ waxtaanee liñ doon waxtaanee bu bokkul ci liñ doon waxtaanee kenn ku ci nekk boo amee problème boo xam ne itteeloon na ko wala loo xam ne am lënt la wala dara bu ko waxee rek ñu ci xam ñu wax ko bu ñu ci xamul dara it ma xam ko ne ko xamul ca dara salaamaaleykum wa rahmatulah
ci kon moom dafay laaj maanaam la kii dafay laaj ma ne kii kon dafay laaj moom maanaam Touba Touba Mbacké lan jan seet nga la am ak lan moo ko wuutale ak yeneen dëkk yi laaj bi nag boo ko xaw naa gudd tuuti waaye dañ ko jëm gàttal ndax dafa lëkkaloo ak ak wilaaya Sëriñ Tuuba moo tax waxat nañu ci ay waxtaan yu bari ne Tuuba maanaam ñëwul ci téere yi bu yàggee yàgg ma ñu ma waxal ne am na téere bu ñuy wax asaxsiyat al xaliqatu fil islam bu Abdourahman Badri boo xam ne nag cee nett li ni iranien yi doon wëree doon seete Touba ñoom iranien yi dañu waxal ne Touba buy dina ñëw ci bitub jamono waaye ak imaam lay doon ndax ñu ne ba tey borom téere bi nga wax mu ne am na ay barab ci asamaan wala boog ci arab ci barab suñu borom yi foofu malaayka du ko jige même bi def du ko jige ñu ne barab boobu boobee am na juróom-ñaari xubba ci liñ ko mën a misaale juróom-ñaari néeg wala juróom-ñaari wàccukaay ba ca gën a mag ker ga keram takk ndeeram ci besaam moo tiim ci kaw suuf fa ñu tabax kaaba ba ca ñaareel ba ba ca topp gannaaw boobu takk neeram mu nga tiim fee ñu def Touba tey jii ci Sénégal ñu ne waaye nag ñoom yi ñoom ñoom barab yooyu fu seen takk neer tiim ci kaw suuf bu yeboon ñu tabax fa dara bu yeboon bañ faa tabax dara waaye ba baax di tukki ay malaaka ay malaaka ñoo koy wër di ko gar ay bakiraat di tukki suñ ko dara dara itam loolu lañu ko tabax kenn du ko mën a yàq kenn ko mën a mag ndax ku jël taw ay wuti ko malaayka yooyu ñoo koy fekk ñoo koy aar ñu ne loolu kat moo aar màkk te bokk abraha doon màkk yi kaaba ndax ñu ngi koy garde te loolu it la suñ tubaa sukkandiku ko ba tudd tubaa tubaa na ko sa maanaam tubaa di ñu garde ba la tey ba ñu mën a gën a gëm loolu tey jii pexe mu mel noonu tey jib jëm tubaa su boobaa itam borom Touba ci boppam am na sañ-sañ ne ne war Touba génn leen te bàyyi Touba boromam sëñ Touba nag loolu tedd gee Touba la waaye dafa lay def naka la gis a Touba ndax ginaar yooyu dañu ko wëree dañoo wër tegtal yi joxoon jeex na ci suñu Touba ndax dañ ne woon day toll day am jigéen joo xam ne ci waxtu sàngam bu jotee te tel teg jigéen jooju tim tàkk ci suñu borom ak pexe day wax jamono ji muy war a toll ci jigéenu biir day tëdd bés di feexlu mën naa nekk guddi wala feneen xëy na ba muy tëdd yàlla mi dara tëw mu tombe fa keroog fa keroog tuubaat di tàpp ci kaw suuf su ko defee takk nder ba tiim biir bi di biiru ndaw si su ko defee ker googu yëpp dugg ci biiram le iliman maanaam li nekk ci biiram su su su juddoo mooy mooy moo tudd tuubaa nekk imaam bi nga xamante ni mooy jeexal mooy mooy nekk maanaam borom jamono ci mujj jamono waaye li leen tegtal yi leen joxoon ba mu ba mu jotee ba weer te gisuñu ko ñu xam ne kon du génn ci ñoom sëñ Tuubaa nag dafa li ñu wax ne képp ku ko am yaay nekk xalifatullahi batin xalifatullahi batin ci ñu digg ci téere seen gi ci daf cee am ay tegtal yoo xam ne bokk na ci yi may wax te yooyu yëpp yi ko seetee dafa daje woon dafa daje woon ci sëñ Tuubaa ñu gis ko te yàlla doon na itam borom xam-xam yi xamul bàtti gëm nañu loolu ba am ñu ñëwaat di ko naka ñëw di ko seet ngir ba xam topp na ca moom moom nit kooku day wax bu ñëwee ci mujj jamono bu mbooleem liggéey ci am bakkan jinne yeeg ak ak kalimo yi ak doomu aadama yi daje loolu li ko fexal ñu ko mën a dara loolu am na ci suñu tuba te itam day nekk jëm joo xam ni itam moom la ñuy di moom la ñuy yàlla yi dénk ruux doom mbindee yëpp jinne yeeg ak njanaaw yeeg ak doomu aadama yi te loolu bind ba wax na ko bind na ko si man war a am say la laaj si yéen yow maa ngi tudd min malik ibn qasim ibn ali te si man war a si man war a li àqli àqam si man war a am si la laaj loolu foofu la mbir mi nekk na ko jaar ni sëriñ tuba wax na ko jaar ni ci sama loxo déedéet daf ne na ko jaar ci sa borom si man war a am si la laaj ci sa borom si yéen mi ngi ci sama loxo maanaam loolu lañ ci tudd mooy sunu borom dénk na ko jaar ak midi loolu di di dëggal kon ci mooy borom jamono mu des nag léegi nag seet kon tegtal yi ak mandat yi ak sart yi loolu lépp amul importance ndax daal ko li ci amul importance mooy li tàqaloog Touba lëkkaloog Touba ak ci Touba mooy bëri Touba ci li nga xam ne ni loolu la ci waxee ne moom mooy xaritulahi batin ndax xaritulahi batin kooku soo nee mooy borom jamono da ngaa wàññi maqaama maanaam borom jamono ci moom benn la ci ay téeméeri naqaama yu am te moo loolu moo ci gën a suufee téeméeri yi ci am ci borom gaay baax yi xam nañ ko junni ba junni juróomi téeméeri yi dafa nekk yàlla rek moo xam ak moom kon Sëriñ Tuubaa ko jëm na wax ne muy mooy naan wala mooy wala li mooy maqaama maqaamam kër sa moom yàlla rek moo ko xam yàlla yàlla rek moo xam ak moom waaye am na ci naqaam yi ñu xam ne borom moo nekk xarit laay bari xarit laay bari nag mooy barab bi nga xam ne ci kaw suuf xoolal suñu borom ci moom lay sotteeku suñu borom du xool tële di xool di xool tële benn barab rek lay xool fa muy xool nag xool fu muy taxawee mi ngi mel tey jii nga nga nga maanaam projecteur bi bi projeté benn film tableau bi muy taxawee tableau boobu rek lay tax di tax ci kanam tableau bi taxawaat ci gannaaw bi tableau ba rek lay tax tableau boobu rek mu nekkal Sëriñ Tuuba ci biir daal ci misaal ndax loolu loolu dañuy ma mën a xamee biñ bàyyi moo gisee Touba tax tableau boobu bu ci lépp suñu borom di sotteeku suñu borom xool ba dafay gis lépp maanaam gis ba mooy dafay gis li weesoon li jiitu woon Sëriñ Touba maanaam li jiitu woon aadama ak bi aadama ñëwee ba ci Sëriñ Touba loolu lépp suñu borom mi ngi koy gis ba léegi suñu borom mi ngi gis ne xamal li xewoon ci Sëriñ jabal Sëriñ Touba li ko léegi ba léegi lépp ñu ko gisoon ak benn yoon te li ñu doon gisal loolu li doon gisal li nekk ci biir doomu nit ñi ak ci biir doomu aadama yi seen xel ak seen xol di gis gis nekk ci biir ndox yeeg suuf si ak asamaan yeeg ngelaw yi. ni mu ko gisee loolu ko gis ci bant yi ak ci ak ci kalimo yi ak ci jinne yi ak ci mala yi su ko doon xool dara ko ko lépp lay xool te muy xool lépp lay xool na benn yoon. xool boobu nag mooy lépp li projeté bi di projeté ci tableau bi nga xam ne bu ko projeté rek nga gis image bu Paris bi yëpp wala image bu dëkk bi yëpp. suñu borom nag bi ñu koy xool Sëriñ Tuubaa moom Sëriñ Tuubaa en tant que xalif Tuubaa bu baax xool ba xool suñu borom boobu mooy andi lépp suñu lépp li am ci àddina te donc suñu borom xam ko te bokkul ci xëy nii la koy sottee ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa yi nag boo xoolee buy buy xool boppam noonu lay gisee loolu ndax loolu moo tax Sëriñ Tuubaa da daa jógee da daa jógee ca ca ca ca ca gànnaar dox ñu ñu ba toll ba tollu ndax Sëriñ Tuubaa di muur na ko ndax mu ne ko demal dajal naa ndawal di ñëw fekk na booba ndawal di ñëw te kenn tàggoo kenn jublu kenn téléphone wu ko ñu ngi gis ci xool suñu borom boobu ci xool suñu borom boobu da doon gisee anam moo leen moo leen place yi ndax suñu borom teg na ko ne place yi am bari mu war ko taam te it daal loolu daal yëpp la ko taam la ko gisee noonu doon gisee ne mbóoti aat yi ak mbóoti baax yi ci ak baax ak yëpp ak ni ñuy ñaane fu mu war a ñaan lépp la doon gisee ko te daal moo xam fan la jaar suñu borom ak nan la war a ñaane ak ba waxtu li ñuy ñaan daal waxtu loolu doon gisee yëpp ak waxtu bii la ca baax la ca ko kon lépp dara suñ ko lépp la doon gisee benn yoon kon gis na kon Touba fa mu war a nekk gis Touba li ñu ko may ñu gis Touba ñu lay woo may ñu gis Touba Touba kon li ma faral ak mboolem dëkk yi ci des màkk jëgaataan dëkk yi ko tagatee wala tàmbatee daa doon yeneen dëkk yi déedéet mais kerte ko ci moo tax kerte kon yéen ñooy gàddee tu mag Kaaba ga nag ñooy gàddee Touba loolu ñu jiitu sëñ Tuubaa ñëw jamono ci ay téere wax nañ ko te ku mu neex na nga ci wax ci téere Abdourahmane Badawi sax sax xalifatul ci islam ca xaddis ndaareel ko kon Touba ngoo yeneen dëkk ci desal ngoo jaajëf
mbokk mi laaj question boobu li ñu ko doon ci li Serigne Saliou Salam wax mooy Serigne Touba da ngay xalaat bu baax ndax turu dëkkam ak turu doomam ak turu téeréem di ko gis ci fenn fudul moom dëkk ba mu tànc aljanna la ko tuddee te boo xoolee ci fay koy nit ñi loolu Serigne bi wax léegi wajal xarimana xariman amina wa kun bi bi kafilan bamina dëkk boo xam ne dafa am kóolute ñu garanti ko loolu dëkk bu ko Serigne Touba wax ne Touba rek la ko Serigne Touba wax waxu ko ci beneen dëkk comme loolu wane na ne Touba wóor na ak yeneen dëkk yi te sëñ Fallou am na benn naar bu ko ma taxoon que sëñ Fallou lu tax rek ku ñëw ne leen yàlla leen mën ngeen tëbb ci seen suuf si rek jox ko sëñ Fallou ne ko turbatu ardina deretu baaxdina yëpp ci lu madina bi ismi rabbina suuf si lépp day saafara
maanaam loolu kon loolu kon moo wutale kon moo wutale Touba ak yeneen dëkk yi sëñ Touba nag moom nee na ma ne dama fàtte woon loolu moo wutale Touba ak yeneen dëkk yi sëñ Touba nag moom nee na li tax moom li tax moom Touba mu wutale ko yeneen dëkk yi li tax ñu gën a bëgg Touba ci lépp lu mu liggéey moo di ne Touba moom daf koo wut tabax ko defar ko tëkk ko te dara dara dara dara yi ak ñu dugg ci yéene lépp yéene jëpp ci suñu borom ñu nga ñu dugg ci jàmm yàlla bi sell képp sànni ko ko leneen mais loolu moo tax moom li tax ñu gën a bëgg Touba rek loolu moo ko war maanaam dëgg yëpp yéen Touba moo ci gën a seer daanaka ñu naan Touba moo ci gën a seer
waaw masaala moomu li ñu ciy teg sax du bari tuuti la tuuti doon sëñ bi ni mu def ba gindiku ci Touba ba ñëw Touba nga ni Touba ba ko sëñ bi tànn dara ñu ko fa fa doon def ci ndigal déerum ci gis bëgg yàlla koo xam ne bëggul dara lu dul boromam ba mu tàmbalee ci njëlbéenam njëlbéenam la melawoo mel li nga xam ne kumbal awliyaa yi moom leen suñu borom tànnal mu li ñuy wax xaadisul wala xaalis muy sot bu ñu sot seen borom su mu xamante ni lenn dem ba mel ni xelam dafa dem doomu aadama yi nga xam ne xamuñ ko woon dañu ne woon dafa nitoo di ko xam ne daf daan jékki-jékki ni dëkk topp àll bi di waax tafar tafar tafar ba mu yàgg mu dal ne kësëg ndu yi wëlbati ko jublu feneen ñu ko laajee mu ne nga xam dafa am lu may woor te xamu foo féete mu dal def nag rek mu génn topp àll bi di dem ba kenn du xam fu mu nekk mu am fa ay fan di jàng borom rek léegi nag ñu gëj ko gis di ko wër ci àll bi ba fekk ko fi bërëb buñ ko dellutee fóotuure yi raxas bopp bi bàyyi ko mu delluwaat mu dikkee noonu ba mu yàgg mu doy waar am na benn rëbb boo xam ne ku meeloon xàll bi la ñu dénk ko ko ne ko na nga fexe ba dinu ko seetal ba fu mu war a toll rek waxtu wuñ ko soxlaa nga mën noo tegtal béréb ba mu nekk wala fu ko jege ñu def waxtu wuñ toogee ay fan nga xam ne aajo woon dellu ci ko toppatoo ko ñu laaj ko rëbb bi mu tegtal leen bët boo xam ne buñ fa àggee rek daan ñuy séen ko wala buñ doxee tuuti gis ko am benn bis ca yoor yoor waxtu digg bëccëg mu woo wër wër rëbb bi ba gis ko ne ko ndax keroog altine ci waxtu wi jënt bi fenk fa nga ma fekkoon ma toog ndax xamati nga ko mu ne ko waaw mu ne ko dama bëgg nga yóbbu ma jiitlee rëbb bi ba àgg ci wetu ñun googu soree ko ñetti mètre mu ne ko fii da nga toogoon keroog nga gis nag suñu borom dajale na yu àddina ak wa àllaaxira ak muccu jaam ñépp dig ko ko ca bis boobale bàyyi ba boobee ñu topp koy xam ne war ko nekk ne lu ngay def ak yëpp fii la koy jote mooy béréb mooy béréb boobee mu nekk léegi bi nga xam ne xam na xam na béréb boobu mu bañ mu réerati ko muy def garab gu ndaw bu ñu romb damm ko muy lan ndax bu caat bi woowee bu di ko xàmmee ngir bu war a fee ñëw rek xam fi muy jaar ba agsi mu daal di fay def bérébu xàmmukaay boo xam ne bu ñëwee fa lay jaamoo yàlla foofe la ko suñu borom xamale fi muy jaar ba fi nga xam ne fi la yëkkati li mu soxla woon yëpp li mu sàkkul boppam ak li ko yonent bi sàkkul ci boromam teg ko ci loxoom xamal ko fi mu war a jaar natt yi mu war a am yi mu war a giseel xamal ko it bi nga xamee ne bu jógee wundeel bi mu war a wundeelu te fu mu jëm fépp la mu nekku fa te waru koo amee foofa mu am ci xam-xam bu mel ne gént te leer ak moom ñu def bu jógee rek toog ci béréb boobu dina am xam-xam bu leer ba bi nga xam ne suñu borom nag leeralal na ko mbi yëpp foofu mu ne fi lañu may mujj gise muy béréb bi mu tànn ci Touba kon Touba gépp al maxruusa béréb bu suñu borom tànn na ci kaw suuf aar ko ñoŋal ko musal ko ci yàq def ko muy béréb bi may di béréb bi yërmande yàlla koo xam ne képp ku bëgg yërmande yàlla dugg fa yàlla na ci yow boo bëggee sa ñaan loolu ñaani fa yebul ak ñaani ci beneen kuréel nga xam ne nag suñu borom xam na ko may yi ko nag ay te lëkkale ko ak béréb boobal nag fa la ci jógee nag xam ngeen ne gannaaw bi jàngale waat na fi sax tuuti waaye bëriwul dafa tàmbali waat daal di bàyyiwaat xam ngeen ne gannaaw bi fi tam ci mbàkke bool ba xew xew boobee ñuy nettali te soxlawul jaar ca ci imaam ja fa daan jiite ak ñi mu àndal lañ ca wax ba kenn ku ci nekk bay yemul la tontu yi mu wax ci sa mbir jóge fa noonu sañ ci daaru salaam xam ngeen ne jamono yooyu mu ngi bind masaalikul jinaan bi mu àggalee daaru salaam toog na fa diir yàggul mu tàmbale tuuba léegi xam nga ni mat lañ faw ni tuuba tax waaye xoqal bu kaaw ci njëlbeenu tàmbaleem Touba booba waxagul sax dem Touba Jolof la bind xoqa ni ko ñuy waxe ci musaalik boobu circonstance yi ñu roog di ibnu rushdin imam Qurtuba faqih bu mag boobu mu dajeeg Muhiddin ibnu Arabi diggante dajeeg Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ak Cheikh al Qaadi ma jaxate kala ni mu mënoog xew-xew boobu mi ngi ci préface mi ngi ci introduction xoqal bu kaaw boobu man ci traduction bi bu baax daal dëkk la boo xam ne xam ngeen ne suñu borom li wax fadlul ixtisaas yi ak fadlul kës bii ngëneel loo xam ne dañ koo fàggu ak ngëneel lu koy fàggu dafa soog sama borom rek mu def ko Touba ci la bokk xam ngeen ne li mu gën a waaw waaye sax dana ko laaj ndax dana ko laaj ndax xaw naa ko fàtte dafa bokk ci fi ñu tànne ci pàcc yi rawatu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak kaaba ga dañ ko tànne ndax dafa am ci pàcc suuf yoo xam ne suñu borom daf leen takkal garaat yoo xam ne yomal xiyaam lay kay te ku dégg ci suuf sa suuf sa daf lay layoon yomal xiyaam kon nag am nañu yaakaar bu rafet ci ne Touba bokk na ci pàcc yooyu ne kon nag mu ne ci la wax nga ne bu Touba ci am na ko am na benn laaj bi borom su bind ci kayit bi ne dafay laaj ana lan moo tax kenn xamul ci Amadou Bamba tax personne n'est en mesure de connaître Cheikh Bamba le grand marabout Cheikh Bamba loolu lay laaj ñu yomb la lu simple la nit bu la tuddee la mu yoon mun loo koo xam moom bi la tuddee tudd rek mooy xam ne weenu léegi Cheikh Ibrahima Fall bi ñu ko laajee ndax yow xanaa yow foog nañu yow bokk nga si ñu xam seen tubaab mu ne laaj gis ngeen buy indi jàng bi dëgër yi si ndax bi ci yéeg ba tàpp ci li mu ci laal rek ak li li ci li ci gi ni mu ko ëppee li ma xam seen bàmbaal li ci def noonu la mel Cheikh Moussa Moussa radiyallahu taala anhu ñun yooyu mënuñu ko xam ndax ku nekk xam na ne li mu tontu lépp du ci wax dara lépp lu mu wax weesu na ko weesu waay boo xam ne moo raw diggante asamaan ak suuf waaye li mu wax rek nag loolu nee na xelu yëm xelu jaam kon nag moom ci boppam xel mun koo xam li ñuy wax wara sawul xija li nekk ca gannaaw fa xel ñëwul la ca gannaaw ndax suñu borom tabaraka wa taala ab dencam fa nga koy denc ci day xóol li ngay fi ko xam ak li mu nekk nekk buntu ngeen mu suñu borom ci kaw suuf jaam ñi war koo xam li ñu war a xam ci moom li feeñ te li feeñ du dara ci li nëbbu li nëbbu jomb na jomb na koo feeñal jomb nañ ko ko xam te du yemal xeer te it nit ñu koo xam ku mu ko waxoon nit du dugg sa bopp mukk ndax dafa féete kaw ñi nga xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saaba yi mënu ñoo xam dara dara dara dara ci diggante ak borom ñu xam toll ci amul mbambe yi tamit taalibe yi ak ñudul taalibe yi lott nañ ci war koo mën a xam ndax jëmm joo xam ne buy dem ci diwaan ba bu kaaloo benn nit ci nit ci bu kaala gi ka bëñ bu ci nekk wal yi kaamil a cay jàppandu ñu dem ci diwaan ba ndax boo bàyyee rek leer bi benn nga daal bu ñu toogee benn doomu aadama bi ñu ngal dara dara dara bu toogee lu dul ci ndigal boo ko defee ñu sàbbi la nangu sa iman ak xamam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xam lu jaam ñu ñu ko xam kon nag loolu daw na ci tàggal ñu la ñu gàtte salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
waaw xam naa ne sax loolu moom kenn mënu ñu ko cee loolu ndax ndax loolu moom bàyyi rek ngeen jéggal ma rek moom moom sëñ bi ci boppam moom daal xam naa ne moom ci boppam moom am na lu ko lu mu rëy sax xamu ko woon moom ci boppam moom sëñ bi ci boppam waaw ndax waaw loolu daal ñu ñëwee ko waxtaan waaye moom ci boppam moom am na lu ko réer ci boppam loolu xamut li lu mu ndax ci loo xam ne mi ngi mel ni sëñ da ko wax ndax ki kii da koo fekk nekk li ma suñ dañu jóg dagana nee na ma tey ba bokk ci ci daara benn bés dañoo fekk sëriñ bi muy jàpp ni ñu doon defal tey sëñ Mourtala lañ ko doon lañ ko defal la defaloon boppam ndax ndab la tegal kii mel ci jàpp mi jàpp mi di jàpp jàpp mi tóor ci ndab mi li ñu jàppee bay bay bëgg a jeexal ne ma yëg si taxaw ci buntu seen ko mu jeexal jàpp bi bay yëkkati ndab jëmale ci gémmiñam di naan nee na ñu muy tumaa yegg ñu muy tumaa yëngu ma ne teg taxaw sëñ bi naanam jàpp itam ba mu des tuuti mu def jënd ci des sotti di di di ci diw boppam ni ba mu diw boppam ba bëre bëre bëre wëlbit ni jàpp seen ma taxaw mu xam ne fekk naa mbir mi te mu ne ne loo ko mas a bett rek bala ngaa dem mu wax la ko ni mu ne Modou ma ne ko mbàkk mu ne ma jàllale ni ne ma yëg mu ne ko li xam nga lu ma ci jubloo mu ne ko déet mbàkk mu ne ko dax sama jëm bii day ñaar jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp sama jëm ji day ñaar su te su ma commencé ak ndeke jën ji topp jee joo jëpp topp ji ci des day di ko jaamu naa ko def waaye mënuma ko loolu mooy li ñuy wax naan xaaj Cheikh Ahmad Bamba en tant que lui maanaam Cheikh Ahmad Bamba en tant que doomu maam Jaara Bousso ak maam Mor Anta Sali de gane addina Mbàkke nekk nangam ak nangam dëkk ca Bawol bokkul ak Cheikh Ahmad Bamba en tant que xalifa xaadimu rasul bi nga xam ne moom beneen dimension la ñaari jëmm yooyu nag ñoo incarné wu benn bii maanaam moo bëgg a jëf moo moo bëgg a topp def jàmm ci bii boobu nag beneen beneen beneen beneen dimension boobu nag mooy bi sëriñ bi xool xool xool xool xamu ko mu mu bëgg koo jàmm waaw waaw loolu ak dolli la woon rek ci benn question bi dafay laaj kii dafay laaj ndax Cheikh Ahmad Bamba moom dafa mi ngi tàmbalee xalaatam lii moom ci wàllu ci wàllu xalaat la wàllu pensée ndax moom mi ngi ko tàmbalee pensée ci salafiya maanaam dafa tax moom sëñ Tuubaa dafa jékki-jékki dafa ñuy jamono rek daal di nekk rek sunnit bu ñu nee salaf salaf rek mooy sunni wala dafa dem ba yàgg nekkal ci leneen ba yàgg mu door a nekk salaf loolu ci leeral Cheikh Ahmad Bamba bi mu ñëwee dafa fekk jàng fan fan boo xam ne xaadir la woon ko te li sëñ Saar di wax rek maanaam mbir yu nekk faaw yàlla yoonal ko am na fu mu war a jaar waaye loolu wuutiwul sore bokkul ak batin maanaam nit ki moom faaw mu am ndeeg bàyyi sauf cas exceptionnel comme Sidna Isa ak Adama waaye faaw mu am ndeeg bàyyi faaw mu jaar ci enfant xale nekk yooyu moom ay yoonal la rek yoo xam te ñun maanaam ni ko sëñ bi leeral waaye bi sëriñ bi bi mu ñëwee li ba dem def jàng ba ñibbisi nag ba mbiri dugg ko ba mu jeexaloon njàngam ba tàmbali nag ay ay recherche am booba sëriñ bi nekk gu sunni li tax nag sunni sunni la nekk sectariste la parce que dafa daal di dugg ci xaadiriye ci tarix xaadiriye sëriñ bi daal di dugg nekk xaadiriye jël yóotu xaadir ci li nga xam ne noonu la noonu la ñu sëriñ Basiru nettali ci téere bi mu nekkee xaadir yóotu mu jël ko daal di nag tudd ak parce que lu jiitu sëñ bi ñu tuddoon xaadimul jiidi am na benn genn xasida boo xam ne moom la cay tàgg di wax ne xaadimul jiidi maanaam moom moom boobu tur la yoroon avant mu tudd xaadimu rasul def na ci yoon woowu ak ci wér de juróom-ñetti at de de mille huit cent soixante neuf ba mille huit cent soixante dix sept huit ans bi huit ans yi jeexee nag juróom-ñetti at bi mu jeexee xam naa am na maanaam jeexal na yoon wa gis na mbir ma ak secret ba après daal na mu mujj mooy génn ca yoon wa jël wérde wa delloo boroom ba noppi nag ci ni ko mën a waxee daal mooy fote na ko maanaam bàyyi na ba ba sëriñ bokkal jilaani bàyyi googu nag ak wérde wam ko delloo tariix ba mu génn jubluwuñ jubluwu ca woon nuy jubluwuñ ci ne wérde ba baaxut wala tariix ba baaxut wala si ab bokkal jilaani baax déedéet ci góor yàlla yi la bokkoon waaye sëriñ bi moom gën na ci waaw yoon tey dem sëriñ bi jamono bés bi ñëw boo xam ne dootu mën a mukk mukk mukk mukk nekk ci tariq mu dootu mën a ne tey dem dootu mën a wékku ci kenn itam en tout cas gën na ci waaw yoon ba mu ca génnee mu sóobu ci sagal yi 1877 def ci juróom-ñaari at ba ba 1877 ba 1884 waaw 1877 mu dugg ci Saint-Gélier def ci juróom-ñaari at donc 1877 ba 1884 1884 mu jël rëdd wa delloo génn ci woowu yoon bàyyi ko ba sëriñ sóobu ci yoonu Tijaan 1884 nekk ci ba 1894 mu def ci juróom-ñetti at mu jël rëdd wa delloo borom génn ci woowu yoon bàyyi ko ba sëriñ léegi joor ñu kaat ci xaadire joor ñaat ci xaadire joor ñu kaat ci tijaani yi daal di taxaw nag nekk gisatul kenn ku ma mën a yëkku gisatul wenn yoon wu mën a nekk te itam nag nekk gut murit mu def ñaari at yoo xam ne dafa gëlëm ñaari at yooyu sëñ Basiru ñu ngi koy tuddee amu taxaq amu taxaquq asfaqtula amu taxqiq 93 94 nag li sëriñ doon dund léegi yëg si mooy di ko di ñu xam ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam feeñu na ko jox ko ndigal suñu borom jox ko autorisation mu daal di jaayin teg yàlla alyawma ubaayyi'u rasulal Mustafa bi xidmatin wa as'alullah al wafa loolu daal moo nekk moo séparé diggante ba mu gën ba mu ba mu ñëwee ci jamono jii ba ci bés boobu mu jaayin teg suñu borom ak diggante bi commencé bés boobu ba kere ba ni mu wàcc liggéey diggante fii nag la bàyyi tariqa soobu nag ci yoonu sunna ak salafiya ba ci 1927 loolu moo tax diggante bii moo ñuy may ci méthodiquement parlant pour pour pour pour chercheur ci lii ci wàllu xalaat rek mooy mooy li nga xam ne mooy baaraam bi ñuy mën a permettre ñu mën a distinguer ci li jiitu ci dugg Sëriñ Tuubaa li ñuy wax li jiitu bay a ak li mujj bay a li jiitu bay a mooy bi sëriñ bi ñëwee ba ci ba ci at ñu jaayante li li ñëw après bay at mooy li commencé ci at mi ba bés ba ñu sëñ bi wàcc liggéey mooy avant avant bay at et après bay at loolu am na fu ko sëriñ bi waxee ndax loolu dafa am ci am importance mooy انوي ما شئت في قراءتك لقصائدي تجده ان شاء الله ان كان ما كتبته بعد عام هذا اما الذي قبله فلا léegi yow yaa xam loo loo yéene ci soo sooy liir soo may liir man sëñ Touba samay xasaay yi yaa xam loo yéene barke wala bàttin la wala da ngaa bëgg a xam nan di nga di nga am di nga ci fekk bu soobee yàlla bu fekkee mais nag à condition à condition mu bokk ci xasaay yi nga xam ne moo yi ma bind li tàmbale ci at mii ba kere may may génn jamono am amaa nag yoo ko jiitu woon mu ne nag yooyu bokk ci kooku pour seetlu bi kon dafay xam ne bu yooyu mënu ci basé pour xam pensé Serigne Touba parce que Serigne Touba daf ko agrégé bon léegi kon voilà donc pour ki doon laajte est ce que Serigne Touba dafa ñëw dafa ñëw rek nekk salafit wala déet déedéet jaar nay jaar jaaree en tant que tout comme tout chercheur comme et d'ailleurs comme tout penseur bi mu ñëw ne ba ci année bii nag le résultat nag def ce qu'on appelle table rase bon pas table rase dans le sens méthodique mais dans le sens doctrinal parce que doute bi dafa dute et puis gis vérité ba rek mu jeex tàkk mu ànd doctrine wu ba ni mu génne àddina maanaam làq
asalaamaaleykum question boobu sëriñ bi doon tontu comme de laaj ba xam sëriñ bi dafa jiitu woon loolu dafa am tuuti rek booy sëriñ bi ñu ci dolli ndax dégg nañu fi ñuy waxe naan mashayikhi sayyiduna jilaani wa saasali maawo tijaani waaye ñu dem ñu déggaat nañu it ñu wax ne lépp tanaasaqa bi jilaani alayhi ridwaanu lazi aman lépp tanaasaqa bi abul xasan tàmmante li dinaa bi tijaani wóor na lépp téye na ko yëngal na ko ci loxoom ba xam daal bi ni mu toll ak lan la ko wëdde mu xam ne bëgg na lu ëpp li mu wàññal di ko jubli ci yonent bi ba dégg ngeen sax mu wax naa daana li kulli man lahu maqul ana wasilati wa rasul daana li kulli man lahu wilaya kawni li xaaliqil baraaya aaya kon sëriñ bi tëbul tëb rek sos dara daa jaar ci li ñu baax ñëpp yor xool ko ba xam ne lii doy ko mu door a wàññal di ko di topp yonent bi salaa salaam ak sunna
salaamaaleykum borom laaj bi bayit la indi sëñ Tuba wax ne ilayka qad kittu min qawli wa min amali wa min jamii alladi qad kuntu axtaaru fi sëñ bi waxe ne yow sun borom maa ngi wal di ko jublu ci yow di tuub sama wax ak sama jëf ak lépp loo xam ne nekkoon naa di tànnal ko sama bopp maa ngi koy tuub muy laaj nag mu ne jan wax lay tuub ak jan jëf lan ak lan la tànn la tànnoon te bàyyi ko mu di ko tuub laaj bu am solo la suñ tuuba tuub na ay waxam ak jëfam ak lépp lu mu di tànnal boppam ci suñ tuuba bi tuub tuub bàkkaar lañ ci xam waaye ban bàkkaar dañuy xasanaatul labraar yi sayyiaatul muqarrabin li rafet ci labraar yi labraar mooy gaa yi yàlla ñu baax yi jëf ju rafet ji ñu jëf ba naw ko ñaaw tiif yi si ñu jege yàlla dëgg li sëñ Tuubaa di tuub noonu la demee moo di maqaam bu mu toll ñi nga xamee ne waaye yàlla ñu di maamu juróom di waxee ne bu nit jublu woon ci yàlla téeméeri at walbati ko xëfiinu bët rek dana ñàkk dana perte ci xëfiinu bët woowu lu ëpp li mu amoon ci téeméeri at yi maanaam yàlla loo ko gën a jege rek sa lépp di gën a am valeur sa benn seconde moo ëpp junni at jaamu yàlla keneen ko agul ci martaba boobu weesu bi nga xam ne nag moom la ñuy weesu fa ñu toll woon bu ñu geesoo seen gannaaw dañuy xeeb la la ñëwoon ba rus ba wan ne suñu borom te ji ni wax seen diggante moom joxuma ko ko lu mel noonu lay tuub minute bu ñëw seconde bu ñëw mu yokk ci boromam loo xam ne xel mënu koo xalaat loo xam ne moo ëpp fuuf la mu amoon ci li mu mas a jaamu yàlla ba bu muy toll foofa bu geesoo gannaawam gis ne fii toll woon na fi day am perte rus rus goo xam ne moom lay tuubaat moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax innahu la yuxaanu ala qalbi fa astaxfiru llah fi lyawmi miata maratin leer yi dana muur sama xol ba benn bis rek ma di ci tuub téeméeri yoon maanaam yokk bu muy yokk ci borom gaaw bu muy gaaw bu geesootee gannaawam xam ne fii la tolloon borom nii la ko doon jaamoo nii la ko doon màggale nii la ko doon joxe teggin daf koy weesu woosu boo xam ne loola daf koy jàpp muy bàkkaar ba di ko tuubaat loolu mooy inna yasra laka law ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqim gis ngeen ci xasir yi ba saa yu ne sëñ Tuuba suñu borom lay tànnloo tuub na lépp lu mën a tànn boppam ba suñu borom rek lay bàyyi moo koy tànn lépp gedd na foñ na sànni na wëcc na lépp lu mën a tànn boppam li ko yàlla tànn rek ci la jàpp boolewu ko dara te dootu ko boolee dara moom du koy fekki kon laaj boobu ñaar yëm jant woon yi yow yëm jeex ak yow loolu gën a aju ci sëy lay laaj nan lañ koy defee taalibe bi nga xam ne dafa gis sëriñ bi muy aju ci moom wala ñu gën a aju ci kum gisul dañu yàlla ñu ko jiitu woon mu àgg te moom àggagul mu bëgg kooku jàpp ci loxoom wammat ko ba àggale ko gis ngeen ne sëñ Tuba ñu ko sëñ Asal Salaam sëñ Moussa waxe léegi fi mu jaaroon waaye bu mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko bàyyil képp ku doon man maay sa sëriñ dafa jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye bu mu jël yóbbu yooyu yëpp daf koy jële ci ñoo xam ne yellu wuñu woon jox jox ko ko loolu moo tax mu wàcc ko gannaaw bi lii du kese nag buy jébbalu ci ki ma gis aslamtu nafsi ilayka la koy wax jébbal naa la sama roo wala jébbal naa la sama bopp adduna ak alaxira jébbalu mooy mu baayaa rek jaayante nit ki faral naa koy misaal ci ne boo tawatee boo ñëwee da ngay jébbal sa bopp nga seedi mu ne bu la nee bu la añ doo añ bu la nee bu reer doo reer bu la nee tumul sa tumul sa nga tumul ko jébbalu mën naa weesu loolu naa daal koy jébbalu kon nag docteur bi nga xam ne mooy faj sa roo bi mooy faj sa xol bi moo lay yëkkati jëmale ci yàlla doo jébbalu ci moom yaram kay waxoon nañu sànq ne roo ko gën a sell ndax roo mooy texe mooy texe bi ëllëg yaram moom fii buñ ko suulee fi la nit itam yem fi la yëpp am yem ba nit ki buy dekki beneen yaram lay dekkaale ndax roo kenn du ko mbugal kenn du ko sewal lu dul ci biir mu nekk ci biir yaram philosophie maanaam philosophie coow lu ba tàyyi ci ne ndax nit ki yaram wa mu amoon lay dekkiwaale bay xalaat ne waru la mën a am ndax duggante yi nga xam ne moom la yaram yi duggante ndax nit ki day lekk yaramu jàmbur yaramu jàmbur woowu mu lekk rees dal di nekk deret deret jooju dal di saxal suuf ci moom mu am yaram ñu dem ba nga xam ne yaramu kii duggal ci biir yaramu kii yaramu kii kon bu yoon xel bu ñëpp bëggee dekki mag nan lay amee ñu posé question yu bari ci loolu dafa gudd duñ ci sori waaye di leen di xamal ne yaram wu mu doon waaye li ci gën a bari mooy yeneen i yaram waaye roo ga war nga xam ne mooy yëpp mooy dugg ci bàmmeel ni ñu faral misaale ne bàmmeel ni mu demee ci néew bi néew bi fa ruuxam nekk nekkul ci bàmmeel bi waaye ci bi ñu ko doon misaal mel ne fii bu jàpp ca roo ga samp ci bàmmeel ba nga xam ne lu roo ga yëpp mu ngi ko yëgee ci biir bàmmeel bi doonte yaram bi ràpp na ba nekk suuf itam foofu la koy yëgee kon roo ak yaram wax nañ ko ba tey dañoo am juróomi façon yi rapport yoo xam ne day changé ci biir dundu nit ki ba soxla ñu di si jaaraat kon li nga xam ne moo doonoon laaj bi moo di jébbalu ki jébbalu roo xam ne jébbal ki koy ki koy tëggaat wala ki koy kulóoraat wala ki koy raxas wala ki koy fóot ni nga jébbalee médecin bi rek sa yaram bi tawat mu di la faj ki nga xam ne sëñ bi ñuy jébbalu ci moom nag am nay charte taalibe bi am charte xaw ma nag sax laajal na loolu wala lépp dafa laajal rek ñuy jébbalu waaw sëñ bi moom am nay charte charte mooy na nekk tabib maanaam na nekk médecin ba nga xam ne fukki malade bu ñëwee ci moom kenn ku ne mu xam sa jàngoro kenn ku ne mu xam ndax war naa nangu sa njëkkal wala war koo nangu aji texe nga wala doo aji texe kenn ku ci nekk am nga ñaari leer yoo xam ne leer jii day xëcc leer jii di dëmax leer jii day xëcc ku yàlla yërëm jii di dëmax ku yàlla yërëmam ku wax texe a cheikhul kaamil boo agsee ci moom dana xam sa jàngoroy xol cëpp ca la lay sante la nga xam ne moo lay saafara war naa mën a dox sa diggante mooy gën sa wax ak texay di ndax mooy yëpp du caa gën mooy bu nekk mooy sama texay di ngi li nga xam ne ne jaamu yàlla bu nekk am na bàkkaar bu muy far waaye du caa gën jaamu yàlla bu ci nekk bàkkaar bu ne lay far ndax am na bàkkaar yoo xam ne lu dul dundal njaboot ak yërëm yéen du ko far am na bàkkaar boo xam ne lu dul yërëm bindee fi yàlla yi du ko far am na bàkkaar boo xam ne julli rek koy far am na bàkkaar boo xam ne xalaat yàlla rek koy far am na bàkkaar boo xam ne sarax rek koy far naka noonu bàkkaar yi sëriñ bi noonu lay xam ne xeetu bàkkaar yu nekk xam la koy far mu fàggul la ko xam lay dox sa digganteeg la lay alak ci zaahir wala ci baat mu dox sa diggante moom sëriñ bi bu mu def taalibe bi alal ñi ma koy jox bu ci warum nekk bu nekkee moom ba mu yàgg mu ci ko dem ci beneen sëriñ bu mu ko naqari na fekk li koy naqari rek moo di sëriñ ba mu bëgg dem mënee ko dara bàkkaar boo xam ne julli rek koy far am na bàkkaar boo xam ne xalaat yàlla rek koy far am na bàkkaar boo xam ne sarax rek koy far naka noonu bàkkaar yi sëriñ bi noonu lay xam ne xeetu bàkkaar yu nekk xam la koy far mu fàggul la ko xam lay dox sa diggante la lay alak ci zaahir wala ci baat mu dox sa diggante moom sëriñ bi bu mu def taalibe bi alal ñi ma koy jox bu ci yoru nekk bu nekkee moom ba mu yàgg mu wàcc ko dem ci beneen sëriñ bu mu ko naqari nga fekk li koy naqari rek moo di sëriñ ba mu jëm demaleen ko dara te bu toogoon fi man dana mucc nga fekk ni li ko naqari loola doon na waaye bu jàgg ni dama nekk sëriñ dafa dama nekk taalibe déedéet bokk na ci kon ay saatam bu ko dara itteel lu dul njëriñal taalibe bi lu koy fexeel rek bu ko dara naqari lu dul liy wàññi taalibe bi rek waaye moom ci boppam bu ko taalibe bi fa noonu wala mu mere ko wala mu bàyyi ko ne taalibe yëpp dana wàcc koy bu mu ko naqari mukk loolu mooy sàkku taalib sëriñ bokk na ci sàkku sëriñ yi itam ñetti téeméeri siddiit ak fukk ak ñett yi nga xam ne dafay nekk ci doomu aadama amee ay ñoro mele yu aju ci façonu texeem ak façonu texeejam bu ko dee jàkk rek nga xam siddiit ji bu ci nekk ak lam koy sant lam koy jëfloo ak bàkkaar bi muy indi ak la koy dindi da ko sëriñ jëppal waxam naa sànq ne sëriñ bi mustalim bu amoon ay taalib yi gën a bari yi nekk su gën a sori ci penk yi nekk su gën a sori ci sow benn bu ci nekk dana nenn ko safal nangami yoon ci xef yu mbët wu nekk li mu bokk sax sax ci taalib yi muy lan an yakunu bayna yaday cheikh yi kal mayiti bayna yaday rasil yi néew bu ñu fi rek ki koy sang ni mu nekk ci disposition mu di ko wëlbati bu ko neex te du bañ du daas daas lu loolu la taalib yi war a mel ci sëriñam li mu ko sant rek ci àdduna war na koo def te waru la xalaat lu tax sëñ bi sant ma lii bu mu ko xalaat bu sëñ bi defoon loo xam ne dafa niru lu ñaaw itam ci saahir bu mu ko sikk mukk ci xolam bu mu ko dingat ci lan bu mu ko dingat ci xolam na ko xoolee bëtu yàlla ndax mooy buntu yàlla na ko xoolee ne sëriñ bi kat ca xagara ba la bokk maanaam ci pays suñu borom ba ca xale yi ca nekk di ko fo sañ fa mu nekk ca la bokk te lu mu la sant yàlla la ko sant dafa cat ba xam ne lii sa njëriñ la mu sant la ko sëriñ si njëkk si daan nattu seeni taalibe ci façon yu bari benn sëriñ boo xam ne dafa daan jàngale mu am ci taalibe yi bu leen xoolee gis kenn ku nekk sa leeru xol mu xam ne mat na sëkk muy ngëm bu ko gëm ak doyloo bu ko doyloo mat na sëkk mu gis kenn leeram man ci tuuti mu di ko nattu mu gis benn jigéen bu moom boppam boo xam ne ci dëkk bi nit ñi xam nañ ko jigéen ba dal di ñu fekk si sëriñ bi toog mu dal di ñëw dal di jàll ñu jàllee góor gi daal di jóg topp ko daal di tëj bunt bi yàgg fa biir daal di génnaat taalibe bi daal di tànk satala loxo bi indil sëriñ bi sëriñ bi xool xool taalibe bi gis nga tuumaal na ko léegam xam ne benn bunt rek am benn bunt rek am ci focus bu mu duggal mu ne ko duggal duggal nga teg ko ci ci focus mu dugg gis fa dara sëriñ bi woo ko mu ñëw mu ne ko dafa la doon natt boo gisee ñu fi ñëw ñëpp seen aajo faj ma ñëw yi dem te yow yooyu ñëw la lii ma nemmi ko ci yow ki duggoon malaayika la du doom aadama di leen rafet njort ci sëriñ bi ngeen aju ci moom bu ngeen ko xasee seet ba ne doon ngeen aju ci moom rafet ngeen seen njort ci lépp benn taal bi dafa yàgg lool te seexul ku ñëw rek ñu yooyu la nga dem moom muy àgg fi moom it muy xolam na xarit benn bis sëriñ ñu daal woo ko benn benn taal bi ñëw ci kanam yàgg fi sëriñ bi yooyu ko na ko mu dikk sëriñ bi bëgg a wax sëriñ bi xool xolam xam ne kii dafa sikk sàkka mu daal di koy woo woo taalibi bi nga xam ne yeewi na ko ne ko demal nga daanu ca teen bi taalibi daal di dëgg moom moom waa ji fi yàgg kat la ko wax waaye ba demee ba ak rek yër teen bi gis ne gudd na daal du taxaw ki fi toog ñëw mu ne ko demal daanu ca teen bi waa ji daw rek ne taxaji rek ne bi teen bi dëngu rek ñu daal di koy génne dara jotu ko mu ne ko gis nga lii ma tax am naa sama wàll yéen nga am sa wàll bu sa wàll manqué dara laa la dul mën a dañ maa doylewul kon jébbalu ni nga wóoroon médecin bi nga bàyyi ko sa yaram lu la sant nga def ko sëriñ bi ko raw ndax sa médecin bi dafa jàng ba mën rek sëriñ bi dafa def riyaa ba def tërbiya def tarqiya ba àgg li mu xam ni mu ko xam mu gën a rafet médecin bi li mu xam gën ko xam ndax moom xam-xam dafay jóge ca yàlla suñ borom koy dicté di ko teg li mu sant ne suñ borom ko wax wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee sëriñ bu mat sëriñ la kooku nag kon ah boo ko joxee sa bopp lu man rek ci yow la waaye ci moom salaamaaleykum
kii moom dafay dafay laaj maanaam taalibe yi ndax ñoom ñu ngi ci yoon ci seen ci seen diggante ak sëriñ bi maanaam ndax ñu ngi jubal ndax li li leen sëriñ bi santan ak li ñu tërale woon mbirum taalibe ak yoon wi ndax ñoom ñu ngi ciy jaar wala déet loolu moom ñaari ñaari anam la maanaam tontu bi ñaari anam lañ koy tontoo benn bi la ñuy tontu bi ci des suñ daanaka moo nekkante mos lañu saam muy daaju ci seen diine ak li na leen ko muy warte waaye daaju ci seen bi moom cadre général bi xam ngeen ne sëriñ bi comme niñ ko waxee woon ci New York nekk suñ thème suñ suñ thème conférence mbirum taalibe ci sëriñ bi dafa dafa doy waar ndax tax mu doy waar mooy sëriñ si si daal amee taalibe dañ daa jaar ci ay loi sëriñ bi moom du jaar ci loi dafa amee woon sañ-sañ nga xam ne ni muy defaree kii tey su keneen ku beneen ñëwee du ko defaree noonu suba moo taxoon sëriñ bi séddale xaw ma borom borom question bi dëggul turam waaye sëriñ bi dafa séddale taalibe yi ci ni ko sëriñ del bindale dafa def ñeenti xaaj am na suñuy wax sax naan ñeenti xaaj yooyu mu ñaar la ki gëm sëriñ bi di ko liggéey tey jaam yàlla ak ki gëm sëriñ bi di ko liggéey te du jaamu yàlla ak ki jaamu yàlla te gëmul sëriñ bi ak jaam bi gëmul sëriñ bi te te du jaamu yàlla waaw ñu ne ñaar ñooñu ñoom ñaar ñu ngi ci ñoom ñu ngi ci ñoom ñëpp ay fenkat la ñu ngi ci ay seen seen seen leer nañ maanaam kenn ci tus ndax keneen du jullit ci dub taalibe te ñaar ñaari taalibe yi ci des kenn ki moom dina dugg àjjana kenn du ko xisaab kenn ki ci des dina dugg buy dugg àjjana des na ko xisaab waaye ñaari taalibe yooyu nag moom la ñu jaxasee waat sëriñ bi moom la jaxasee séddale leen ñeenti taal ñeenti xaaj ñeenti xaaj yooyu ci ni ko sëriñ mu dem bindee sans compter ñi nga xam te ni kenn du leen xam balaat ni tukki ndax mu dem ne ne benn li ëpp ñu taalibe yi kenn du leen xam balaat ni tukki ndax ndax duñu feeñ ci jamono dana caab rek dañuy feeñ waaye li ci feeñ ma muy nun ñii ak ñi war a ci jébbalu ëllëg ba tey tukki ñi war a jébbalu war leen a xam ñeenti xaaj ko ñenn ñi xaaj bu njëkk bi moo ne ñi nga xam ci ñoom sëriñ bi def leen a tënk ci sariya ak jaamu yàlla ak jàpp ak julli ak woor nga xam ne ñoom sariya rek boo boo leen xoolee sax yaakaar ne dégg nga ñeneen lañu dañoo war a yeneen yoon muy tuddee ci ay nit bokk na ca sëñ Mbacke Bousso sëñ Aliou Seck ak Malheureux Fatou Sama Darou Moussi ñooñu ay misaal lañ ci catégorie bu njëkk bii li may boo gisee mais si ñeenti xaaj yi mooy taalibe yi damaa bëgg ñu xam ne ñoom ñëpp mënuñu bokk benn nekkuñu benn catégorie maanaam ñun ñi fi nekk nekkuñu benn catégorie bokk ñu tën benn cadre bu ñu jëngatoo ci sëriñ bi bokk ñu jëm ñu war a ci sëriñ bi loolu laa bëgg mu leer xaaj bi kenn ku nekk nag yaay xam ci ban xaaj nga bokk nga seet nga xool sa bopp ndax yaa ngi dëggal la dëggaloo waaw xaaj bi dëgg daal moom mooy ñii fii la leen sëriñ bi tënk naq leen ci biir te mënuñu koo génn te itam bëgguñu koo génn sariya rek te ba léegi am na xaajab ñaareel bi nag ñooñu ñoom sëriñ bi def leen a sëriñ bi dafay tënk ci yéen yeneen ba yéen ci beneen biir moo xam ne ko sariya du xaqi mais ci feneen la leen tënk ñu fan la mooy liggéey ñàkk jox sëriñ bi ñoom li li seen diggante sëriñ bi moom mooy liggéey sëriñ bi lu ñu am jox sëriñ bi xaalis te sëriñ bi dem nee na moo ne taalib yooyu di dugg woon ñoom benn sëriñ benn sëriñ du am kër ga te te dama dafa sëriñ tuwaa nee na bu dul woon taalib yooyu ko dëkk bi du mag ci du gën ci dëkk yi jumaa yi di jot ci jumaa yi ay dem benn sëriñ du am kër ga la gënal benn sëriñ du am tool ba la gënal maanaam foofu ñu xam importance catégorie bii nga xam ne ñoom li leen sëriñ bi leen sëriñ bi tënk moom mooy liggéey rek ñàkk joxe waaw kooku mooy deuxième catégorie kooku kenn ku nekk nag yaay teg sa bopp de troisième catégorie bi mooy li nga xam ne ñoom maanaam jarul ma di cay yegg ndax ñun dañoo daal wax jël sëriñ Touba ñoom ne sëriñ Touba daal moom mooy kee rek benn yoon mu jeex ñooñu bokk na ci maam ñëpp bokk na ci exemple maam Seydou Fall ak suñu mbay Sarr te maam Seydou Fall xam nga loolu message bi bi ñuy joxe ci moom rek da ngay déglu kii li mu wax pour nga xam ne mbirum mbirum daal ci sëñ Tuubaa moom sañ-sañ sëñ sëñ Tuubaa dafa bari sañ-sañ tax na ba bu bu nag dara bu nag bu bu sëkk maanaam bu sukk ci sariya wala la fere ci sukkandiku te nag tàllu sëñ Tuubaa wala di gën sëñ Tuubaa ak tàllu bi ndax penseba nee na xoolal gémmañ goo gis laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo tax ñu xam xaw ma nag daal di isaat kii dañu isaat kii kooku xaw ma ci dara waaye li leer moo dina ñeent ñii kenn ci dem safara incha allah léegi nag ñun ñii kenn ku ci nekk nag yaay xam yaay teg sa bopp nag yow ndax yaa ngi dëgg wala déet noo koy xamee da ngay xool ci ban catégorie nga bokk soo bokk ci bii te doo joxe addiya doo liggéey doo ñàkk nga xam ne ko ci dara kenn ku ne yaay xool sa bopp daal waaw waaw kon ci kàttan nag sëñ sëñ sëñ tubaab moom dafa newoon ne diggante boobu wu ñuy wax taalibe ak sëriñ bi moom mu ngi ci diggante sëñ tubaab ak taalibe rek loo amul ci moom ci yow la waaw wasalaam
benn laa dama ni bu kéemaane borom laaj bu dugg ci lislaam la laaj bu aju ci coow lu bari ak werante bu bari loolu dama bëgg sëñ bi nga bural ñu ne bu la neexee dellu si Isa alayhi salaam ci jamono ndax day wàccaat ni Adama ak Awa wàccee wala day judduwaat ni nit di juddoo bii dellu si mu ne loolu lay laaj dellu si Isa ci boppam day dellu si wala du dellu si ba tey ulama yi coow nañ ci lu bari ñi nga xam ne dañ koo weddi ay yi ñu taawil pour indi dikkut Isa dañu nanguwul taawil booba xadis yi ci rot dañ koo woyafal ñoom dañ koo doyadi ay wa in min ahli lkitabi illa la yuminanna bihi qabla mawtihi wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahidan min qabla mawtihi haayu damir jooju mu ngi dellu ci Isa kon ñu déggee aaya jooju moo di ne ñoom dañu ne amul kenn ci borom diine yi jóge asamaan nasaraan yi ak yawut yi amul kenn ci ñoom ku dul ne da nga gëm Isa balay Isa dee ñoom noonu lañ tàyyee ay ñu ne kon Isa deewagul dina jëmm si ci jamono ba ahlul kitaab yëpp gëm ko وإنه لعلم للساعة كما ولا فلا تمترون بها واتبعوا الساعة فإنه لعلم للساعة يجيكم أنت فلا تكون يوم من ذكر عيسى ما نرجع لك أدنى بتوكي ما نتخوف الساعة حديث آية من دجك عيسى دي دمشي ci jamono xadis yi di xadis yu bari yu wax lañ ne Isa bu dindi sa jamono dana fekk Masiix Dajjal mi ñuy wax tolal jullit ñi ba bloqué leen ci benn béréb yonent yàlla Isa moo koy rey ku ko reyee ba noppi li ki ñuy wax Mahdi yu ne moom it ñu ngi jublu si mujj jamono daañu bële daje jamono moog Isa bu ko defee fekk na ñu war a julli julli tisbaar wala takkusaan ci seen wuute ñu liqaamal mahdi ba mu war a jiite yam ci yàlla Isa ne jariñ mahdi ba ma ko ne ko jiitul du julli mu ne ko yow la ñu liqaamal jiitul mahdi yu jiite Isa topp ci ak jullit ñi ñu àggale seen julli julli yi ci des yëpp nag Isa jiitu mahdi yu ak jullit ñi topp ci ñoom muy indi xisa yu bare bare bare bare yoo xam ne ay werante la li gën a lënd nag mooy Isa dana dellu si ci jamono bii xam ngeen ni faral na ni waxtaane ne waxi yonent lu ñuy taawil la ñu gën a bari ndax nit ñi seenum xel moo dul àgg ci interprété kon la mu gën a jile di koog masix dajjal dellu si Isa di koog mahdi nit ñi dañ koy jël à la lettre toujours rek ne ni ñu ko ni ñu ko siinoo noonu lay dikke mën na dikk ba weesu te duñ ko xam ndax day dikkale leen dikk yi nu wuuteeg wañ ko siinoo woon waaye gannaaw bu ñu seetee ñu ne Isa dina dellu ak ñu ne Isa duñu dellu si ñëpp ñi gën a wóor lu ñu wax suñu wax gën a nekk lu dëgër mooy ñu ne Isa dana dellu si kon Isa buy ñëw mënuñu ñëwee Isa xam nga ne yonante la woon bu dellu see dootu nekk yonent ndax gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent dootu am yàlla dootu yónni kenn kon Isa buy dellu si bu mott li dundam yàlla du ko yónni Isa ni mu dikke woon ci adduna waxtaan nañ ko ba tàyyi ci conférence dikkewul ni nit ñi doon dikke dikkewul saxit ni Adama ak Hawa dikkewul Adama suñ borom dafa yónni Jibril mu tibb ci suuf si ñu tabax ko ci suuf suuf la ñu tabax ko Hawa ñu soqee ko ci Adama alquran ñu leen ñu leen ñu leen na leen ci bi nga xamee ne chrétien yi bëgg nañu woon def Isa muy loo xam ne dafa bokk ci yàlla wala muy lu jóge ci yàlla mu ne leen inna masala Isa inda allahi ka masala Adama xalaqahu min turabin summa qaala lahu kun mu won leen ni mu binde aadama te amul ndey ak baay noonu la binde Isa rek te mu am ndey te amul baay loolu yaay wax yu ne Isa dañ ko dañoo tibb ci suuf tabax ko Christophe Isa ak juddoom ak dikkiinam waxtaane nañ ko ba tàyyi ci ay conférence yaakaar naa ne soxlawul ñu di ci delluwaat ndax day gudd guddi gi ci passé na jeex na ba noppi Isa xam ngeen ne bi nga xamee ne roole bu suñ borom yëkkati jox ko jibril mu war ko mu war a ñëw ci adduna nekk genn wàllu nit genn wàllu malaaka yi téewul dafa judd daf ko jaarale ci jigéen ba mu jaarewul ci góor jaar ci jigéen Isa ndax kon gannaaw baax na fa awlaahu ilayhi wa ma qataluhu ma salabu walakin shubbiha lahum gannaaw suñ borom waaw ba tey beneen laaj la bu greffé si bu ñu greffé si ci laaj bi waaw ba tey ñu dugg ndax affaire Mahdi bi ma tudd moom itam Mahdi Mahdi dina ñëw wala du ñëw ak kan mooy Mahdi ak kan lay ñëw mooy laaj bi ci des moom itam bi bu dawaat ne diwaan bi de diwaan sax ak gën a simple ndax bi moom dafa complexe Mahdi yi dina ñëw buñ seetee téere yi jullit ñi téere yi ñu am gannaaw alquran bi ci gën a wér mooy saxiixul Buxaari yi bi ko gën bi si gën a wér daal mooy sax boo xam ne Buxaari ak muslim daje nañ ci xadis boo xam ne Buxaari indi na ko muslim indi ko mooy bi gën a wér ci xadis yëpp kon gannaaw bu alquran wéer loolu ci gën a wér gannaaw bu loolu wéer xadis bu Buxaari yi rek indi moo ci topp gannaaw bu boobu wéer xadis bu muslim rek indi moo ci topp gannaaw bu loolu wéer xadis boo xam ne matal na charte yi Buxaari yi charte yi Buxaari yi daan nangu soog a nangu xadis bi ne dëgg la charte yi mu daan seet ba gis ko soog a nangu ne xadis bi dëgg la te xadis bu Buxaari yi indi waaye sett bu matal sàtt Buxaari yi moo ci topp gannaawam bu matal sàtt muslim moo ci topp kon xadis bi gën a jër ci xadis yi mooy xadis bu Buxaari yi muslim daje Buxaari yi ak muslim daje nañ ci dellu si maanaam dikkub Mahdi li nga xam ne nag noonu la ko téere yi békk lëre moom lépp du ay xadis Mahdi bu ñëw jëmbalee doon yoo xam ne day am xar kanam bu leer ba mel ne leeratul dagan bu ñëw ci sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay bokk bu ñëwee dana delloo ci maandu ak jub ci kaw suuf ni muy fekke bu fees ak jël ak dëng ak tooñ bu max bi moomu ñu ne bu ñëwee dana fi jëlee tooñ diirub li mu fi nekk waxtu woo xam ne max bi ci boppam diirub li muy am ci adduna bu jeexee bu fi jógee adduna dana dellu feesaat ak ak i tooñaange bu boobaa la suñu borom di yebal xeetu ngelaw moo xam ne mbas la ëmb mbas moomu ñun xamuñu ay microbe maladie la boo xam ne day dal di faagaagal nit ñi wala nan lay mel mbas moomu day ànd ak ngelaw ngelaw loolu mooy dugg nit ñi nit ñi dee bu ko defee bu nit ñi dee daañu toog jamono boo xam ne ñun ñu jëdee dootuñu mën a noyyi ndax xes ñu kenn du am kenn ku la suul ni ko téere yi waxee ba bi suñu borom di yebal ay malaayika ñu dikkee melaw ngelaw fang leen ñoom ñëpp daane ci géej gi mooy waxtu waxam ne dem nañ ba ub bunti tuub bu ñu ubbee bunti tuub ba max bi yu dem la loolu di soog a ñëw maa ngi nag neewuñu bërëb sàngam lay ñëwee kenn ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay doon koo xam ne dafa bokk ci ay sëtam xam nga bu ñu nekkati yonent maanaam sallallahu alayhi wa sallam fukk war a doon sallallahu alayhi wa sallam bi ca gëne koo xam ne kii doomam nga ci deret rek la ndax képp koo xam ne nekk la ko dul xalku doon loo nañ la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sirik nga boole ca la nga nekkoon Mahdi yu bu ñëwee daraja jooju lay indi Isa bu ñëwee daraja saxaaba lay indi ba tey Isa mi nekkoon yonent te ñëwoon lu jiitu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi mu dellu siwaat dikkeetul dikkuñu yónni moo xam ne dafa war a sos benn diine déedéet dafay ñëw ci diine yonte al musala sama saaba lañ koy jàppe saaba lañ indi ba tey mu gën a kawe daraja mahdi bi nga xam ne bu dikkee xutbul xaw nga rek maqam xutbul xaw lay taxawee xutbul xaw sart yi ñu ci waxoon mooy mahdi yu bu ñëwee dana lëkkoog dikku Isa juróom ñaar daañu daje ànd julli juróom ñetti yoon yoo xam ne ñoo koy bokk jullee doo ma mahdi yu ak fu mën a juddoo baabu lu dina lay dajeeg masiix dajjaal ci sàq maanaam ci booru dimat mahdi yu dana teew foofu ci béréb boobu mahdi yu ak lu mu mën a doon melaw doomu aadama lay lay dikkee te day tudd ci xeetu doomu aadama nit la koo xam ne day bari xam-xam nit la koo xam ne day sawar day yër day ànd ak kattan ànd ak xel mu mat sëkk te nit lay doon koo xam ne kii ku rafet lay doon ku sawar koo xam ne kii bu ñëwee fit yi muy àndal wax ji muy àndal day ànd ak xaal boo xam ne lu mu wax ñëpp dañ koy dégg te kenn du ko sañ bañ bu nit la koo xam ne bu ñëwee kenn ku nekk la mu wax da nga ko nangu da nga neen kii li mu wax dëgg la ndax day ànd ak màndarga yoo xam ne li mu li mu doon day dëggal li mu nekk nee ñu bu ñëwee moom masiix dajjal mi nga xam ne dana daje moom ak Isa moom masiix day ànd ak ñaari malaayika bu ne man maay suñu borom maay yàlla mi mi leen moom malaayika mi mu àndal malaayika mi dafa am sell nga mii ne wax nga dëgg dana sax ci démb bi ñeent fukki guddi ñeent fukki guddi yooyu benn bis bi dana mel ne ak benn bis bi dana toll ne weer benn bis bi dana toll ne ay bés benn bis bi day mel ne bis yii ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax bu keroogee boo xamee ne am na bis bu mat ak ndax julli bis dana ma ci doon maanaam juróomi julli mën a déedéet waaye da ngeen di nattale ndax bis boobu day yàgg ba yàgg ne ak du ngeen ci mën a julli juróomi julli rek mu may leen kon da ngeen di nattale waxtu wax nga ne wax jamono yi am na nu moom tax xanaa bu boobaa bu fekkee ñu amee moom tax daañu mën a nattale ni ko yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci loolu la ñu dëggee ba xam ne pôle nord te eskimo yi nekk nga xam ne daañu toog ak ñu am guddi léeg-léeg wala bëccëg boo xam dana dana diire juróom-benn weer wala juróomi weer ñoom itam julli benn bis bu ñu nekkee ci guddi wala ñu nekk bu ñu nekkee ci bëccëg julli benn bis bu leen doy ñoo ngi ko tibbee ci loolu nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam misaal ci dikku mahdi kon mahdi day judd Isa am na ay wax yu ne du judd dañuy jekki-jekki gis ko waaye wax judd wax yu doye dee doye di la ndax ñooñu dañoo dëgg ci nam demee woon xam nga ne Isa bu mu demee dañ koo gisaat dafa dellu siwaat ci kaw suuf ci kaw waxi ñenn nag ndax Isa yahut yi rey ñu ko ci li alquran wax ndax juda la ñu rey juda mooy warkat boobu nga xam ne ba léegi warkat lañ ko wax juda Isa dafa nekkoon nit koo xam ne moomul woon dara ci àdduna amul woon dara amul woon dara dara takku ko ci àdduna mu ñu nekk woon gën mocc malaayika mocc mocc nit bi ñu dikkee itam dëggul dara ci àdduna ñett la moom woon ci àdduna tëg bi muy tëgee boppam doot li muy gaganaay bu tëddee mbàq bi nga xam ne moom lay asse ci dex gi di naan mu dox benn bis ba gis kuy ass ñaari loxoom di naan mu sànni mbàq ma dox bis ba gis kuy tëñee boppam ay loxoom mu sànni tëñ ba gis koo xam ne day njëganaayoo xasabam bii nii mu daal di sànni tëñ ba moomul dara ci àdduna bu fi jógee dara du ko takk nga xam ne kenn du ko mira amul kenn du ko mira bu yem daanaka sax la ñu dimbee ndax takk ci mëddum àdduna mi dara topp ko ci mocc nit la mocc doomu aadama loolu moo tax ba tey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën a mag ndax gannaaw yorul kër mënu la yoonal kër nañ koy doxale lan mooy xàqi borom kër ak soxnaam lan mooy xàqi doom la na war yëpp mënu ko wala matal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yéen suñu borom nee na ko wa innaka la ala xulqin azim nga xam ne dafa dikk mu ne doomu aadama yi ci lépp te gën a mat lépp ba suñu borom ne ko wa innaka la ala xulqin azim mooy yonent bi nga xam ne moo gën a mat ci yonent yi kon bu nee Isa dama dellu si wax ji gën a lëng mooy dañ judduwaat bu dellu see moom it kenn du ko yarante mahdi yi kenn du ko yarante Isa kenn du ko yarante am na masix dajjal misaal yi ñu ko misaale lépp aajo na taawil maanaam interprétation ndax ñaari malaayka yi muy àndal bu wootee ne moom mooy yàlla malaayka mii ne sang mii ne wax nga dëgg julliñ ci lu dul ne lëntal xel nit ñi ndax mahdi bu ñëwee ñooñu day amee ajjanam ak safaraam loolu ba léegi gis nañu xeeti nit yoo xam ne ay xeeti xeet ay état yoo xam ne daanaka mën nañ ne am nañu seen ajjana ak seen safara ku leen topp ñu dugal la ci ajjana ji ku leen moom ñu dugal la ci safara si maanaam ñu jafeel la lépp luy wut nga nekk ci métti lu naqari dund dund bu naqari boo xam ne bu xat lay doon wax ne yaa ngi mel ku nekk ci safara mu ne ñaari malayka yi ñuy àndal te kii naan wax nga dëgg kii naan san nga kii naan wax nga wax nga dëgg ki ki naan ko fen nga nag ki naan wax nga dëgg moom la naan wax nga dëgg yow mi ko ne fen nga wax nga boo ko déggee da ngay defee monsieur Dajjal lay wax naan ko wax nga dëgg fekk malaayka mi koy fen loo la naan wax nga dëgg yow mi ko fen loo loolu luñ ci jublu dañ naan ndax bu dikkee day ànd ak ay mandarga yoo xam ne day mel ni mandarga yu dëgg yu koy dëggal te fekk li muy wax yëpp dara du ci dëgg mooy bu ko seetee ne science dafa dem ba daanaka di weddi yoo xam ne religion la di indi ay tegtal yoo xam ne léeg-léeg nit ñi dañ ci teg seen bët muy ay man-man ak i xam-xam yoo xam ne fi ñu koy sës ci lëndëm la tax lëndëm mooy lépp luy dox diggante nit ki ak boromam lépp loo xam ne ajuñu ko ci alquran ak hadis nga xam ne bu dee bu dee xam-xam itam xam-xam la boo xam ne postari ak teg xam-xam nga xam moom lañ ko war a utiliser jëfandikoo jëfandikoo ko ndax xam-xam ak maanaam yar éducation ñoo ànd jubbeendoo ci adduna keroog bis mu borom wàccee aadama ci suuf ndax bis boobu la wa allama aadama ismaa kullaha keroog la xam-xam tàmbalee keroog itam la teggi yar tàmbalee ndax keroog la aadama tàmbalee waa malaayika yi di leen di leen di leen jàngal ñu tegal ko seen mu toog ci muy seeram muy jàngal malaayika yi ngir ëpp leen xam-xam raw leen ñoom ñaar nag bu fekkente ne dem nañ ba kenn wàññi ko ci rek yàqu-yàqu adduna dal di yàqu léegi nag gis nañ ne yàqu bi am moo di science dem na wàcc éducation bu boobaa nag ñu xam ne dafa tegu ci iqra bismi rabbika ndax bismi rabbika bi nga xam ne moom la alquran tàmbalee mooy iqra te ci rek jàngale mooy lekkal ci sa tur borom naan ci sa tur borom liggéey ci sa tur borom lépp looy def na nga ko def ci sa tur borom mu ànd ak yéene jaamu yàlla ànd ak fekk yéene jëñ mbindeef yi loolu mooy bismi rabbika bu fekkee ne science nag bismi rabbika daf koo lal bu gànnaay yi ñuy liggéey yépp dootuñu ko liggéey gànnaay dañ koy liggéey loo xam ne day day dundal xeet yi day far ay rajo ci kaw suuf day far ay tawat ci kaw suuf day dindi féewoo gi nit ñi féewoo ndëkkante gi ak ëppalante gi ak gaañante gi ak seetaanante gi yépp lay dindi nga xam ne kon day tax doomu aadama bi ñu nekk benn li ko lislaam santaane loolu la lislaam indee science iqra bismillah bi ko foofu la tàmbalee foofu la wuutee iqra bismil ilmi bismil ilmi bu fekkee ne ismil ilmi la nekk ñu jàng science li muy jur mu di ay gànnaay dañ koy reyantee dañ koy ëppalantee kenn ku ci nekk ku mën a mën sa morom nangu ñu amee nga def ko képp koo xam ne itam mën nga tëral ak fiir goo xam ne day tax mu rax ci sa kaw morom ba nga xaw ko wala nga nangu lim amul wala nga dage ko wala nga gën ko da nga koy def loolu fa la ñu wuutee kon bu ñu dellu seen Isa da koy juddu mooy wax ji gën a dëgër mooy bii dafay juddu mooy wax ji gën a dëgër masix daj bi am moo di science dem na wacc éducation bu boobaa nag ñu xam ne day ko tegu ci iqra bismi rabbika ndax bismi rabbika bi nga xam ne moom la alquran tàmbalee mooy iqra te ci rek jàngale mooy lekkal ci sa tur borom naanal ci sa tur borom liggéey ci sa tur borom lépp looy def na nga ko def ci sa tur borom mu ànd ak yéene jaamu yàlla ànd ak fekk yéene jëriñ bi néeg yi loolu mooy bismi rabbika bu fekkee ne science nag bismi rabbika daf koo lal bu gànnaay yi ñuy liggéey yépp dootuñu ko liggéey gànnaay dañ koy liggéey loo xam ne day day dundal xeet yi day far ay rajo ci kaw suuf day far ay tawat ci kaw suuf day dindi féewoo bi nit ñi féewoo njëkkante gi ak ëppalante gi ak gaañante gi ak seetaanante bi yépp lay dindi nga xam ne kon day tax doomu aadama bi ñu nekk benn li ko lislaam santaane loolu la lislaam indee science xara bismi rabbi ko foofu la tàmbalee foofu la wuutee xara bismil ilmi bismil ilmi nag bu fekkee ne ismil ilmi la nekk ñu jàng science li muy jur mu di ay gànnaay dañ koy reyantee dañ koy ëppalantee kenn ku ci nekk ku mën a mën sa morom nangu lim amee nga def ko képp koo xam ne itam mën ngaa tëral ak siir boo xam ne day tax mu rax ci sa kaw morom ba nga raw ko wala nga nangu lim amul wala nga gaje ko wala nga gën ko da nga koy def loolu la ñuy wutee kon bu ñu dellu see ne Isa dafay juddu mooy wax ci gën a dëgër Mahdi bi dafay juddu mooy wax ci gën a dëgër Masih Dajjal ndax day juddu wala du juddu kooku ulama yi garante ci lu bari am na ñoo xam ne dañ dem nañ ba ne état d'esprit la boo xam ne day dajal adduna ndax ñu ci wax ne dana dana dajal mboor fap fàkki adduna yëpp dam des ñaar Madina su mën a war ak Makkatul Mukarrama buñ demee ba léegi daan gis ne xekk na la suñu borom jëfee bu ak moo di bi nga xamee ne waa Makka amuñu doole te démocratie xewagul jàpp jaam ak colonie colonisation moo xewoon suñu borom dafa def xijaar dara ñëw fa loo xam ne kenn dana ko xamee pour dem di leen jéem a dominer amul mbay néew fa pour sol xam ba xamuñu ko amul dara ñu fa xamee bi nga xam ne dem nañ nga xam ne colonisation xewi na suñu borom feeñal essence bi ñuy soog a gis nag ne essence bi waaye kenn waratul coloniser kenn muy xikma xekkam boobu ba tey ñun tëral ci seen yoon ne yéefar du dugg màkk du dugg madina dafay kon li ñu waxoon ne Masih Dajjal du dugg màkk du dugg madina moo leen ko leen ku ci def nag ci fàtte adduna yi dana fa dem ñun gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw ndax julli day yooyu dafa jot question bi moom lii rek la maanaam kii dafay laajte xasaayid yi maanaam solo bi mu am ndax yëriñul nun murid yi ñu jéem ko tasaare ci àdduna ci monde bi ci réew jullit yëpp ngir jullit yi mën cee wante jariñu mën cee jariñu ak ndax maanaam li ñu wax li ñu li ñu maanaam ñi jox rénovation maanaam ak ak ak yeesal ci diini ak ak defaraat ci diini réforme ndax loolu itam mën nañ ko appliqué ci maam Cheikh Ibrahima Fall li aju ci question première phase bi mooy xasaay bi moom xam nga lenn la wuuteeg wér maanaam njariñ ci wàllu njariñ lay wax ndax wérd ci borom xam-xam yi li ñu wax du wérd du yóbbu kenn ajjana maanaam borom xam-xam yi ci islam nee nañu wérd ñoom ñëpp d'accord nañ ci loolu wérd du yóbbu kenn ajjana te itam du yeggale kenn ci yàlla wérd njariñu wérd leen rek la mooy borom wérd bi xëy na gëm na ne moom lee mu génn àddina te ëllëg njabootam ak i taalibeem daa di ñëw te du leen fekk mu bëgg barkeem li mu lépp suñu borom jox ci barke mu toxal ko ba ñooñu mën cee jot mu nag ko ci wérde bàyyi ko fi ngir ku jëfandikoo wérde woowee barke ba dugg la kee xam naa wérde foofu la yem waaye du la yeggal ci yàlla du la yóbbu àjjana sëriñ bi di mu ñëwee xëy na ginnaaw moom nekkul woonu sëriñ yem ca te xam na mbirum lëdd ni mu demee te xamante it wax na leen léegi ni mu nekk woon barab bi nga xam ne so xool suñu borom ci noonu doon sotteeku wan naa leen ni itam ni li taxan moom ni mu gise woon mboolem yoon yi nëbbu te te mu war te doomu aadama bi war cee jaar ñaan ci ñaan ci boromam ak waxtu yi ak seconde yi ak minute yi ak barab yi bu mu bu nee barab yi ak waxtu yi mooy guddi gi yépp day gis ban heure yi nga xam te ni ku ci lool ci ñaan suñu borom nangu ak guddi yi ak waxtu yi nga xam ne kenn waru cee ñaan barab yi yëpp noonu la koy noonu la koy gisee te alquran aussi li muy rëy rëy rëy waaw maanaam li ngay réew yi alxuraan ci boppam dafa bari lu mbóot dafa mbóot yi mooy li nëbb mooy bàccin bi loolu itam yàlla daf koy won sëriñ bi ci message ñu joxe woon léegi ci biir nag programmation boobu li ñu mën a tudde programmation divine maanaam pré-programmation divine nga xam ne ni yàlla programme woon mbóoti yëg barke yeeg mbóoteeg secret yi te te mu war ko sëriñ bi ci loolu la ñu doon basé pour bind xasaay def ci pas seulement daf cee def barke bu mu bëgg taalibe yi jot ci pas seulement daf cee def aussi maanaam njël yi nga xam ne ak yoon yéegukaay yi nga xam ne taalibe yi moom la ñu war a jaar yéegi yéegi ci seen borom ak fi ñu war a jaar ngir defar seen bopp fóot seen bopp ci bàkkaar ak ci ak bari tuyaaba waaye xasaay yi loolu lépp mooy bàttum xasaay yi waxuma ko mais dama wax ne xasaay yi dafa ëmb li ñuy xalaat suñ tubaab maanaam boo xam ne daf boobu la bàtt xalaat message bi ñu ngi ci xasaay yi message boobu ñu ngi ci xasaay yi te mooy la pensée nit loo xam ne dafa intéressé ñëpp même boo nekk ci même boo nekkul jullit daf la intéressé mu nekk kon lu ñu war a pas lu ñu war a pas na rek lu ñu war a propager comme ni nga ko waxee ci question bi mais lu ñu war a jàngaat la war ko tasaare war ko relire ak def jot ci loolu effectivement devoir la boo xam te ne nii nun la nun la incombe nun les murit avant avant tout mais mais surtout que ne message Serigne Touba bi ñu ngi ci xasaay yi maanaam sans pensée ñu ngi ci xasaay yi waxuma bàttin déeg barke déeg mbóot yi waxuma ko ma nga yooyu dama ko jëlale mais pensée mi ñu ngi ci biir xasaay yi donc qu'est-ce que c'est le mouridisme pour nga répondre loolu il faut que nga consulter xasaay bi relire les xasaay wasalaam waaye booy pour Mame Seyra Fall pour Mame Seyra Fall ci deux minutes Mame Seyra Fall dañ koy dañ koy gàttal ci ñaari ñaari point benn bi moo ne li ñuy wax suuf du suuf du mooy nga abandonné adduna bi jékki-jékki rek ci benn société boo xam ne dafa bon politique bi ci ngi jékki-jékki yow tëju dootoo génn doo dem ci kenn di jaamu sa borom loolu dañ ne loolu ni borom paas yi wax dañ ne loolu profession la loolu loolu ci boppam rek mën nañu cee acte te réew mi parce que parce que c'est une c'est une révolte indirecte man tey rapat attitude boo xam ne que ca dañ koy acte parce que léegi pour ñi nga xam def woon nit pour ñoom déjà c'est daal ko farmateur yi pour pour tubaab yi dem kon kii moom ak sëñ bi benn la parce que am nañ moom kon loolu toujours tool ci réew ba mu nekk nga xam ne dañ koon ak loola dafa ëmb dafa maanaam expression la indirecte maanaam waxin la woo xam lan sa faat ko bëgg na wax mais comme moom daawul waxe làmm jëfa daa waxe mu moo tax mu defee noonu pour ne kon moom ne te ñëwatu ko surtout ci benn tariqa ko bés bés ni keroog léegi dañ ko surtout ci yoonu sa salafam yi sëñ Tuubaa xàll kon mu nekk salafi benn leneen ba moo di ne Mame Pierre Fall encore ci rénovation yeesal na ndax yoon mu teg ko ñëpp doon ci jaar di wut yàlla ci tasawu bi mu ñëwee jaaru te yeesal ci yàlla te tey boo demee di daal bi tey boo ñëwee tey di di chercheur suuf si boo tudd xalaat ci baara bi koo mën a def bëgg bëgg cherche ci moom ci mu jaar ba yëg ci yàlla nga jël ab téere na ngi nii sa pensée est là ay ay livre na ngi nii document yaa ngi nii ma ba mu changé Fall mu jaar ci yoon te ma ko tëral yéeg ba yegg ci yàlla di ca yeggale ay nit te mu yor wàll bi te boo ñëwee mën nañ la ko woon nga nga jàng ko mais duy téere du lu ñuy bind. waaw mais ay ay ay expériment la ak i matériel ay gaju la dégg nga ak i jaas yi ak i ak i ak i daj yi ci bërigo ak ak xam ak i xam te yooyu voilà les documents de Mame Seyra Fall te te te te te boo boo andee boo andee ay spécialiste bu ñu utilisé bu ñu étudier loolu ak am ak ak ak benn sociologue ak soufi ak philosophe daañu la woon ne la document yi am na importance ngi nii te itam nag li mu jëfandikoo ba yegg ci yàlla c' est la première fois mu am kon yeesal na c' est que temps bi moo xat moo tax ma tolloole ko noonu waaye yeesal na ci tasawu muy yoon boo xam ne moo ko jëkki moo ko mujje wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw
salaamaaleykum mbokk jullit yi waxtaan waa ngi noonu li nga xam ne jotuñu ko àggale ci laaj yi sëriñ Sam ak sëriñ Saliou ak borom xam-xam yi ne ci barab bi yëpp seet sëriñ baa ngi fi rek lu waay bëgg xam mën nga ñëw laaj rek jotaay bi nag li mu ñu mën a woon rek mooy wane ne lii lu am njëriñ la ci ñun waaye bu ñuy xaar ba jotaay yu mel nii ñu doon koy sàkk kàddu gaane Tuuba waaye yàlla dogal na ñi ngeen gis ñu ñëw tey yéen mu ñu téere yi dañoo ñëw seen jëmmi bopp comme la imam Shafi waxoon ne ay mi maa ngi xaysu ma yanmam ci yeddaaw ni sadri waaw lahu la batna sunduqi kuntu bil bayti kaana al ilmu fii maani aw kuntu bi shuhri kaana al ilmu fi shuhri jëmm yàlla teg fii seen xam-xam mën nañ ko bàyyi ca kër ga seen téere mën nañ ko bàyyi seen kër seen kër waaye seen xam-xam bi nga ànd ak ñoom seen kër suñ daf rek nee leen moom te loolu lépp ci baatum sëñ Tuubaa la kon mbir mi buñ ci gàttal bi ci ñàkk a xam bu ñuy gàttal bi ci laaj ndax nit lu mu xamul te gis ko ko mën a wax war nag koo mën a laaj muy ci lislaam muy ci Seex Ahmadu Bamba muy ci geneen fànn bu mu mën a doon nit nag war naa xam boppam war naa xam keneen ndax boo xamee keneen xam sa bopp da nga xam yow yaay kan ci biir loolu nag ñu ngi tëj waxtaan bi du suñu sago du suñu coobare waaye nag ah loolu la mën a toll ba beneen yoon ñu bañ a fàtte nag leer yi fi am ak ndénkaan yi fi juddoo te fexe ba mu nekk bis bu set mu nekk dund ci ñun ñu mën cee jëriñu tey mën cee jëriñu suba mën cee jëriñu waat ba bis bii di jëriñu ci waat déwén waaye bu ñu fi jógee rek mu mel ni nit ñi daje woon ndax am na waaye am na baat liñ ci bu ñu tàggoo it te ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp di ay kilifa toog ne ak sëriñ Sam ñoom yi ne ñëpp tàllal ñu ñaan yàlla defal na jàmm boole suñuy xol ñu nekk benn ba mën a liggéey yàlla ak yeneen ci ba ak sëriñ Tuuba te dara bañ ko yàq te lu ñu liggéey yàlla ñu ko fulal ñu jaay Xaadimu Rasuul di wax ak yow mu mel ne maa ngi koy yëg bu mu mel ne dañu tëj ci tax naa dee dégg na dal di fàttali naa ko lay wax mu aar dafa ko ñu ko waxoon ah yooyu man dina jaar ci moom ak li ñëpp jël naa xam ne saxaat yi la woon baax na leen des na kon la waa noonu dana jaar ay jaar jaar waaye mu moo tax c'est naa dama boobu buur la woon xam ngeen ne buur yi amuñu yoon amuñu kilifa mais ñaata ñuy def dañoo am kàttan te suñu borom jëy leen ñett di ñëw ci loolu suñu borom nag muy yëngu gis rek mu ngi kese di xalaat ba am tiit ci boppam daal di jékki-jékki rocc ko ndax génn pare fa doxee ba gëstu ak tànkam di lekk ñax di naan ndox mu taar yi ci àll bi ba àll si naa ko nag amul imna ko ibrahima bu ësam amul ñetti at nit ñi jóge fu nekk di ko ziar si xam nga kon takku ak xol bu set ak tur bu dëgg rek moo am solo benn ci lépp mooy na ñoo rey ko bi mu liggéey ñu ngi koy jëw ñooñu topp ci yàlla bi solo yàlla bi solo ne leen dig naa ci borom kaar bi rek tuub la tuub boo xam ne bu ñu ko séddee woon waa dëkk bi ñëpp ay mucc ñu kon tuub bu dëgg nit ñi ci xol ànd ak tiit ci sa bopp lu ne fu ne mën na fa àndale nit fekk naa ak àndal yi bi ko dee jaay ci marché bi sa muy jaam ak bi ak na dëkk daa ko way ci nit yàlla ko xëj yàlla sawa mu yëkkati sa jaaraam ba ci diggante asamaan suuf mu toog di sikkar wala muy gindi diggante boobu bu dul ñeenti at ñeenti at yu manqué tuuti la fu ko lim ne yàlla dañ koy dimaale ci wala yu mag yi ku mu wala yow lan nga wax pour dëlu ngeen asakal rek daan rey nañuy fas seen alal benn guddi mu leen fa mu daan dogale nit ñi tëru dem ci maanaam benn àll boo xam ne ñu leen fi jaar xanaa nag di ko yedd léegi li nga xam moom la nasaraan yi tuddee la grâce bi naan na dara ko touché xol bi daal la bëri mën mu dégg dégg yoo xam ne dañu ne ñun sib fii bu ñu ko aasee fii ba dugg ci bott bii fu ngay wala ne nga di xaar bu daa leen fu ngay tuub na léegi bu la benn jaar la ma faatoon day réccu waaye daal nekkatul ci boppam fu ngay boobu ci awliyaaw yi mag yi lañ doon boole la bokk léegi xam nga nit ki li ma wax daal di wax donc la taala bu ne nit ki fekk woon ñoo am ci yenn dëkk rek daanaka mbir mi ci loxo bu ko neex na ko mel maanaam am na possibilité fekk deewu ko fekk àddu buñ ci tëjal ko buntu tuub buntu tuub kañ lañ ko commencé tëj waxtu waa ñu commencé roc ci roo mën na dina tuub ba ñu jéggal ko la aw na xam ngeen ne coow bàyyi ci فلما أدرك الغرق قال أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا المسلمون خلنا ما يجي من عربي موت النجاة والماوي آل واحد من بعد فرعون آل جماعة من خمنا دمنا بركة راي أقول لك بعد الريام بين باي باي من الموي فعلا باي هو كحوي نيما لباي تيجي يعني أنا باي كحوي أنا تاون lu wàll yi muy rëy rëy yoo xam ne mu ngi seen bàyyi ñoo xam ne ci ëllëg la woon ak ñoo xam ne bu seen bàyyi xam ne ñu xam ak jël noonu Abdoulaye Charani ne Abdoulaye Charani mu wax ko la waaw ñu xam ne Abdoulaye Charani nee na gis ma wax as bi la ko xam nga bind na jëm nii daal di leen ñëpp di leen tax mooy seen borom ñu ne ñii ne axakay bi ñu xalaat leen bu njëkkee wax axakay ñeneen ñi wax ko ñii nag ñu forcé leen ñu wax ko te neex leen nee na borom gis booba dana suñu borom xam ne sama taal yi yëpp ñu ngi féete woon nekk lay joor ci amoon ñu ngi féete woon ci kanam ñu ngi féete woon gannaaw booba laa tàmbali di leen tërbiyee dañ nekk ci seen biir yaay bu ñuy ñëw ci àdduna kenn ku nekk suñu borom xam ne ma suñu xaar ak yëpp kon bilaay lu ko day wax la kooku xel lu ko nangu lu koy nangu kooku lu baax la xam ne kon ñoom xam ne moom la sëñ bi Abdoulaye Tastari wax wala na ne question bu ko doon sax maa ngi digal sëñ bëri na xam dina ko ci nan la wala ci xam fu mu jaar ba jàmm waaw waaw xam ne kon maanaam bàyyi ci roo nit ki kañ lay fekk bàyyi boobu mooy su judduwaate judduwaat mooy lan judduwaat mooy kan mooy mu nit su baax dafa ki nam jëm ci yàlla te mu dëgg ci moom si baax dafa def mu ne di ngeen ko jëndee ko seen xarit kooku moo judduwaat passé c'est intéressé passé maanaam suul nañ ko bokkatul léegi ñu ne ko judduwaat judduwaat boobu mooy ñëwaat ci adduna léegi parce que yéenee ñu naan jiitaloon sama adduna ci sama kanam ba ci sama àllaaxira ci gannaaw léegi dee laa xam te ci sama kanam sama àllaaxira laa jiital sama adduna xam naa lu ma ci yàlla mun na ma jox dinaa ko am sababu bi rek la ma la ma sant waaye sababu bi mënul tax ma am ngir ma bindal woon dinaa sant sama sababu bi nag damay sababu rek ngir loolu waaye xam naa yàlla mën a jox moo mën a xañ nga jiital kon sa àllaaxira judduwaat nga nga am beneen baay moo ci sëriñ bi baay ruux bu mu la tuddee al abul ruux yi baay ruux bi baay ruux yi moo gën a fort baay yaram bi baay yaram bi amee na ko xaq bu ne la ko amee fort kon nee na boo ko amee bu la mën a xiyaamoon fekk nga dee nangam yoon ci jeeraay ngir wut ngërëmal yàlla yi fekk ba du fayoo ko du la jéggi kaar kon borom xool mooy xaq bi la war xaq bi mel noonu moo la war ci sa wàll bi ndax ni mu sonne ci yow surtout sa yaay moo moo moo moo gën a nekk xaq ni mu sonne ci yow ni mu la ëmbee ak disaane tiis bi ak feebar yi ba jur la ak nàmpal ak boot ak saw ak yoon ak fu sa fóot ak sangal ak lépp yu bari jooy ak yëpp ba delloo ko yooyu yëpp xaq la joo xam ne farat la moom mu ne leen boo boo amee dañu la koy dañu la koy fay da nga ko war a fay mën a doo ci sigaat loolu moo tax xaq loolu tiis loolu muy tiis lépp bàyyi roox bi bu gën a fort mën a chaay bi ko xaq ko qaddim ustaadi ala xaqi walidi ولو كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم وهو له ذكر. ثم سلم لا يجب ان تصوت الى كل xanaa dama ko bëgg daal ni ni ma ko fonk kenn kenn ko bëgg sa bàyyi ma fonk sama bàyyi ma ko fekk kenn kenn sa bàyyi lu tax nag nga fekk ci kaw mu ne sama bàyyi jëmm ci nga fonkoon mu la daan toppatoo di ko dundal di ko waate di ko fegul di ko fajal yéen ci rek ko ki nga xam ne yàlla rek bu ëmb rek di sarale ëmb wuus wi sarale kon mooy jëmm ji wuus wi mooy roox gi kon ki yar wurus bi mu gën a foor ki yar jëmm ji te ki nga xam ne moo yar roox gi mën naa ko topp ba mu àggale foo xam ne sama wàllu yooyu bu ñu naroon a jëm ci musiba yi ci sama barke suñu borom dina lu wurus ba yóbbu leen àjjana wala mu tekki leen ay musiba kon ci moo yar ñu mën a jëriñ kon waaye judduwaat mooy li nga xam ne li mu weesoo lépp génn na ci dafa léegi itteem benn la mooy xam yàlla wala am yàlla xam yàlla wala am yàlla fii nit ki beewul mën na ko am dund nit bu nekkoon waaye mën na mën na xam yàlla mën na am yàlla ni ay nit ci volonté ak mooy yi moom employé ak dëggoo ñu dëgg ci moom rek saadiq bi na nekk saadiq te saadiq saadiq bu góorgóorlu mooy doon siddiq siddiq mooy doon aarif aarif mooy bokk ci xol gi benn ci abbaali wala awtaat yi wala ci ñaari wakki yi ñaar ñaar wakki yi wala imamaat ñaar ci imaam yi wala ku dul xaw sa toujours yoon yoo xam ne day dem xaw nga àgg rek fekk déewu waaye muy aju ci xëy na bu dugg yàlla bi dana ci waaye li ci solo mooy itte ji kon yoo xam ne dem na ba xelam yedd ko bu jàpp na lam nekkoon bu njëkk ñu bëree di la doon waroon na koo sori mën na ànd ak coono mu bëgg xam léegi nan la war a mën a def pour mu daw li paase woon te am na benn benn suñ boo xam ne foo xam taal bi ni ko di wax tuuti te mu fay jàpp tool yi rek jàppaat xam ne kon lu suñu waxee ci suñu tuum وجوه طويل بعده سهل وعزلة تشيخ لك رسالة في مدعم في هذا الجوال بصراحة بقى واحدة من مباينة تعمل خبر البكار جوجي فم رمبا وعمل ورم نتلي ورم لا نتلي تبيدا وعمل يقول ما يكتب أمين أمين بكرة شيء واحد te wax moom mënuñu borom ko bon la yonent bi salaa xam nee na doomu aadama dana xaram bàyyi ci xuli safara yow ma xiyam juróom ñaar fukki at ci baat boo xam ne ba mu ko wax di mu ci woon lu mu leer la ñu nekk ak ñu wax kon wax moom loolu la di lépp ci gàtt yi la ñu la di wax te bu sa jàpp la jàpp xam ngeen ne ndox mi ñuy jàpp dañ ne maa ut mutlaq mooy ndox moo xam ne xetam melo càppaam dara soppiku ci ndox dafa am raw xaar yéen koo xam nit ki ki jàpp bu yaas cër yooyu te ànd ak yéene day disposé xolam ci nga war jaamu yàlla bu fekkee ne matal na charte yi da koo jàpp rawat ne booy booy tëdd di nelaw dafay ubbi ndax xol am na ñaari bunt bunt boo xam ne moo jubloo féete maal ko ak bunt boo xam ne moo jàkkaarloo cër yi li ngay jëf ci cër yi moo ciy jeexital li ngay jëf ci cër yi moo ciy jeexital am na jëf yoo xam ne dañ koy jëf mu fàbbi la ba sa xol laaj ci fotol dañ koy bëgg loolu moo waral li ñu doon wax sànq ne yonent yi ñu wuteeg philosophie jëf yooyu nga xam ne dañ ko indee noo xam ne boo ko dee def day jeexital ci sa xol jëf yooyu lan ci jëf la bokk ci cër yi la bokk alxuraan ci ngay jàng ba ko lay jàng alxuraan même bu fekkee ne li mu wax xam nga imam ahmad ibnu xambal radiallahu anhu dafa ne dafa gént gis suñu borom tabaraka wa taala ne ko li ñuy jaamoo li liñ lay jaamoo lépp ngir jege la am sa ngir lu ci gën li ci gën a maam muy xanaa jàng alxuraan muy baax fekk nga xam maanaay mu ne ko nga xam ko nga ñàkk koo xam lépp kon yow nga xamul alxuraan tam boo koy jàng nga ànd ak njàpp diglu benn génn ne itte àddina yi xew yépp ci sa xol nga ci ni ma ko waxee woon sànq xam ne lu doy waar ci sa kanam lu rëy foor boo xam ne waxee suñu borom tabaraka wa taala ci boppam la mu rëy lool gis dem mu mën a ci way fekk ci yow la nga teewloo ko noonu boo ko xamee boo ko xamul yëpp satu yàlla yëpp xaraf yi xaraf bu ci nekk fukki yiw la kenn xamul mu toll te xiw bu ci nekk dañ koy yaar ni ñuy yaay doomu giléem wala doomu nag di ko xool muy màgg di màgg te moom du noppee màgg fukk ba yow xeer te xam ngeen ne jëf yi jëf yu baax yi jëf dañ koy nekk ci kanamu suñu morom ak yàlla mu xool bu ko xoolee leer boobu jógee ca ca moom dem ci jëf ja day dellu ci sa xol ci doon na nga sell ne dañ koy daal di am rek yóbbu ci ñu mel maa ngi fi maa ngi fay may denc yéene nag ci tax moom mëpp wala jëf li nga yéene ba noppi jëf ko wala nga yéene muy bëgg ci yow te mënuloo ko buñ ko tegee ci laamu suñu borom àddoo jàng buñ ko teg dañ koy bàyyi toujours di ko xoolee ba tey noonu lay yéene ëpp doole jëf moo ci kon li nga xam ne yaa ngi jàng li gën a fort yaa ngi ci kanam li gën a fort ci adduna mooy alxuraan te alxuraan xam ngeen ne kenn mënul ne yàlla kenn mënul ne du yàlla ndax wax ci borom la aw meloon la mais du mbindee du mbindee lu fooree noonu nga teewlu réer bu mu rëy diisaay boobu mu diis di ko jàng ànd ak dal ak yarute yaa ngi ci kër yi di la déglu ngay jàng ba àggal di lu fa lu fort loo lu fort lu am alxuraan day layoon nit ëllëg fi nga taxawoon war a layoo mun la taxaw moo raw aw ak lu muy layoo te bu ko yokkee alxuraan bu jógee mel mel woo xam ne keroog la xiyaam mel woo xam ne kenn mënu ko xalaat ñi nga xam ne ñooy nitu alxuraan te ñu tuddee ci alxuraan yàlla nañ ci bokk dañuy soowu ñoom itam façon solo yi wax ne ñeneen ñi ci ci bisu pang bi ñëpp kenn ci doon doon ñu topp ci ñu jiitu ñu topp ci ñi nga xam ne yonent yi dañu wax ne kan ci nekk ñi nga xam ne yàlla seen musibaaru ci adduna gis na tu leen ñi ko ci seen dara ñuy wax yaa yaa alayhi salaatu wasalaam mu ñu jiitu ñu topp ci moom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguur te jubal ko su leen daan jiitoo ñu topp ci moom naka noonu ba yonent yi day kon kii jàng alxuraan alxuraan bu ëppee ñëpp dana ne ndax ay bindee lañu te alxuraan wax yàlla kon kii ànd ak moom topp ci moom mu ko layoon kon dana koy wucce dara ñu koy ci ay dana keroogee yow ngay jàng alxuraan ko xuri kon nag tëb kii dana xam ne tëb sa jàpp te yee nga jàppaat sa xol jàpp baax ndax mu mel rek nit ki amee toog maanaam bouclier du ñu dal ci ak ki nga xam ne dafa ne nii rek du ñu dal ci kawam ki jàng alquran amul dara muy fekk diggante ko lu baax même lu keneen ci jëf moom jëf ko keneen a ko jëf moom mi jàng alquran jege ko wala mu dégg baaxam wala li mu def neex ko lu koo ko jëf wala mu def moom mi jàng alquran am kon alquran lu fort fort la kon lu fort la vraiment bu fekkente ne faral ngaa am nañ jàpp faral di jàng alquran joxe joxe ay catégorie la may saxe addiye atak may saxe addiye atak ñeenti xeet joxe bokk noonu la compté dara may bu fekkee ne ngaa may ngir am bokk wala ngir wëlëre wala ngir bii ngir xaritoo moom wala ngir bëgg mu bëgg la yàlla naa président ko dama di wax sëñ Tuubaa may ko ko comme sarax lañ ko def xam ngeen sarax ñeneen dana fekk dee bu ñaaw juróom ñaar ci yoon sarax na nga feneen ñu ne suñu faw sarax xam ngeen ne foo ndax yi ma xam ñetti kër yi ñu am wax naa ko junni yoon ñetti kër yi fa am sarax mooy gerte gi yow ak di junni yoon tuuti solo la nga xam ne mu yàlla dëgg saaba yi ñoo ciy seeru arsh yow arsh malaay yi ñoo ciy seeru gannaaw na ñu jëm ñu nekk ak keroog sax ca ngay seet keroog yi ñu xëcc jant bi ba mu tiim bopp yi ñu wuy di ñu wuy di xet ñaxtu yi ñu ci xuus ñu ñaxtu yi baaxaat leen ñu ñaxtu yi seen baax ñu ñaxtu yi seen wóor ñu seen dëkk ila axiri ila axiri bu keroog yi ko am kenn koo xam ne doo ñàkk doo yëggante bi da nga sant yàlla te sarax dina dimbali nit ci jéggi léegi nit ñi nga xaritoo moom wala muy bëgg mu bëgg la yàlla naa tëj leen xam nga ñu wax sëñ Tuubaa may ko comme ça lañ ko def xam ngeen sax ñeneen dana fekk dee du ñaaw juróom ñaar di yoon sëriñ na ngay tëdd ñu ne suñu kaw sax xam ngeen ne xool naa yi ma xam ñetti kër yi ñu am wax naa ko junni yoon ñetti kër yi fa am sax mooy gerte gi yow am ci ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne mu yonent bi saaba yi ñoo ciy seelu arsh teru arsh na rek yee cay seelu gannaaw ñu ñu jëm ju nekk sa teru sax ci ngay seelu keroog yi ñu xëcc jant bi ba mu tiim bopp nit ñi mu di ñu wuy di xet ñaxtu yi ñu ci xuus ñu ñaxtu yi baxaat leen ñu ñaxtu yi seen baat ñu ñaxtu yi seen wóor ñu seen dugg ila axiri ila axiri bu keroog ngay ko am kenn koo xam ne loolu ñàkk loo yëggante bi da nga sant yàlla te sarax dina dimbali nit ci jéggi siraat dana ko jàpp na sarax bu kaw gay nit ki téeméeri la nga am la daan ko nekk kii la man xamal nga ma kii la man tuwal nga ma kii la man taxawal nga ba sama xaar sàngam mu faat dégg ci sa wax kii ne la naa doon ma kii ma dama doonoon kii ne la dama wax ak ma naqari ñu nga war a fat ci sa yu yëpp jox leen sarax ñëw taxaw dox sa digganteeg ñoom kan bu nekk xaq la la ba ba xam ne sa xaq jañ nga koo dem la des sa sa topp la bu jeexee nga def gannaaw ñu solo ñu boole ak sax maye ngir ngir mbokk wala ngir ngir ngir diine ak dimbalante yëpp wàññi ci nag ñu def ko téeméeri yoon benn addiye bi ëpp ko doole bu fekkee nañ sell nag ci lan naan la addiye bi addiye di selle mooy ñi sax di selle naan la ñuy selle li nga boobu leew nga ñaax ko wala nga amee ko lu dagan nga yëkkati ko ngir jënd suñu borom tabaraka wa taala joxe ko kooku mooy sell nga fàtte ko nag fàtte ko bu tax nga ne yaa gën nit ñi léegi boo ñëwee ñu ñëpp ku ne téeméer lay joxe nga joxe ngir yàlla tuddee ko addiye kooku kooku mën a jox mën a lekk addiye nga jox fukki junne nit man ñun ñii ñëpp maa leen gën jàppale daal jéeye mu mel ne nga rafetal sa julli wala sa koor sellal ko ba mu wóor la ne ñii sa morom mënuñu ko mënuñu ko nga jàpp ne yaa leen gën nga daal di tàggat wala yoon lépp yaa ngi ni li ñu li ñu ci maladie spirituelle yooyu mooy wax ni maanaam raag yi xol yi moo di rëy ak gis sa bopp rëy ak gis sa bopp rëy moo xale woon iblis mais li ñu naan iblis alayhi salaam suñu borom mos na ko yónni ne ko demal ci suuf nga seet koo fa gën koo fa gën rek nga indi ko seet nit ba suuf si ba mu teg gisuñ ko lu mu yàqale moo gën yéeg mu dikk na suñu borom man nag mos naa mu teg ci mu ko doon lenn loo xam daal mën naa këpp li maa xam mu ne ko dellu mu delluwaat mu wër ba ci benn xaj bu lee mu fa xaj bi dama dama dem ba paase ñaari asamaan fii waaw man bu ñu boo xam ne léegi xalaat ne ndax man naa ko gën te dara wóorul ci parce que mooy la àll daal di koy tànn donc boo yow indi doo ko dara maa laa def mu ne ko man daal gis mu ko benn kaas sa baax bi ñu yor mu ba ci juróom benn asamaan juróom ñaareel xelam benn mu wàcc ko dem na juróom ñaari yoon di dem na ba ci naan xam ba nga xamoon naa nga yoon boo ko indee woon ñu jàpp yaa ko gën iblis nga fekk ko kon da ngay fekk iblis xam nga xam jàpp na yàlla kenn nga xam ne benn wala li doon dox ci bërëb boo xam ne dafa am ndox am ban ban ban boo xam ne bu sa tànk jàddee yoon bi rek yoon bu xat la da ngay dugg léegi sa tànk day nuur ci ban bi mu dox ba daje benn xat ci yoon bi daal di jàdd ci ban bi xat ci jàll jàll bu ñu mu yàlla kii maanaam moom bu doon nit sax waaye xaj bi rek tax laa jàpp ñu ne xaj bi ñu mën gën a di baax xaj bi moom amul bàkkaar su mën mën ko gënal benn bàkkaar te man xam naa ne man ci bàkkaar xamul lu toll xamul bàyyi xamul bëri kon xaj bi ñu gën fuuf xam nga kon waaye nag mooy lu ko sëñ Tuubaa waxee bu ko mën yem suñu fokkoon ci la kon kan bu xëy mbir bu duna di tiyal bu fekkee ne nag kon li nga xam ne ñu indi ci nit di dimbali leneen li topp ci lay day bokk si jàngoro yi dana màgg yi mooy kiñaan kiñaan moom nit ku sew rek koy def wax kiñaan mu doon nit kii mu am ko ñàkk nit kii amul bu mu am lii te yow bu ko ñàkkee di tax nga am ko te nit ñaar yooyu la boole woon bi ñu bindee Adama ak Awa mosu ñoo jaamu yàlla mosu ñoo def dara ñu bëgg leen rek daal di dugg bu àjjana moom mu jaam ba tay xamul fu mu jëm xolam tàng mu ne moom moo gën aadama di ko sujjootal ndax moom mu ngi safara safara loolu la yàlla wax rek la ban ci ñu ne aadama ak ban ban dafa tax lëndëm dafa diis ban du sàkkal alors que kon ba tey rëy ak kaña nag yooyu yëpp yi koy dindi jëglu ci la si ñëwee tàmbale sa moromu jaar ëllëg ñëwagul ba nga xam ne mën na la wutale nga am ci moom rafet njort fàq sa jëmiñ jox bu la bu ñu yëgul sax daan dégg ci rajo bi nit ñi wax naan ay jullit ñu ne seet leen li ngeen di def sa morom mu jaam nga di ko jébbal sa bopp kenn di jébbal sa bopp ku dul yàlla lu gaaw yéen ndax ak loolu gàtt nit ki bu ne bu feebaree day jébbal ko pour médecin wax naa ko ba tey bu la neex bu la doole bu reer doole suñu suñu koy sanga suñu ko lekk te moom di ko jàng ba xam ko boo ko jàngoon xam ko ne moom ki nga xam ne li nga spécialisé ni médecin bay spécialisé la lu waral ndax nga dem boole ko dara suñu boole ko soxla adina am leneen ba mu jàngee ba pare la jël di pratiquer moom da cee nekk ba fokk fokk xam doole bi xam ni mu xale li mu man ak li ko yàlla may lépp mu xam ko nga ne da ngay jébal fee sa bopp te da ngay jébal fii sa bopp ci maladie bi gën a bon nga yow kii bi maladie jàngoro yi roo nga am ki ko mën a faj kee mën a faj jàngoro yi am nga ne di ko jébal sa bopp te ne gaaw na may jébal sama yaa sama sama sama feebar yi ko ma di ko jox ci doomu aadama ni naan dara mu ko fay kenn bu ci bis ko gën a génn ne ñaan am li bare ci bare ci wax ci ñaan am ak yow yàlla ci bare waxtaane naa ko ci ay conférence ak ay dellu sujet bi ñu daan waxal ngeen ñëpp expliqué naa ko ba mu leer ne naa ne gis nañ ko dégg sax nee na ñoom sax déglu nañ seen xel mais ne ci bare ñu gis nañ jàng mu gàtt lay doon ndax xam-xam dafa am lu mu laaj mooy sëñ tubaab yi wala yi naan pexe axabu maa ñett maa ñaar bu jëne aw tax فاعطي بلا نزاع كلك فليلك السهر قلت جميع بصمك نعم خم خم كان يقول خم لا تسمعون لك سيتوكلوا بسرنيك أنا فهمت كون من قلت خسر لك تقول خسر مهم na la xiibal sa biir ngir wut ko te la yeewu sa guddi ngir di ko sax na def loolu dama ci fekk maam ñoo xam ne nangam juróom-ñaar teer ñu ngi ko paase ci jaamu yàlla gëstu ak leer ma mu yàlla iseen leen bi moo ci lépp loolu nga jàng juróom benn at wala ñetti at sa adduna iseen la foo ko yaa ngi loo def sa boos wala maa ko boo koy wala sa tànk aw kenn te li mu xam moom mooy spécialité ci mel na rek ci am certificat yi primaire rek dem ci médecin bi mu jox ko ay comprimé ak garab mu ne waat ana doom yi lan moo wax ne fii ma ko waxee mu jëriñ ma dara ana na ko tuuree fii sa ko def na nga toog rek dee sa def sa feebar day la feebar day la da ngay gis ñu la nga ne boo nee boole boo jàng boo jàngee ba ak ku la wax mu nga wane ne moom ci dëkk fekk xam nga lay wax waaye ñëpp bàyyi nañ leen ak li ñuy spécialisé doo ci ma def naawle médecin bi ci domaine faj ingénieur bi noonu jàngalekat bi noonu kii nag nga xam ne moom ni mu joxe bopp li mu nekk ñee joxe ñu seen ver seen dixième bopp li nga xam ca ñee ca lee nga xamuloo dixième am ci li ci nekk nga yow ñi nga foo ko teg
ak nangu xalaat bi nga fi tey mu fi arraché bind naa asamaan yëpp ak suuf si ci juróom benn
ay yàggee man tatwa tatwa muy ay étape lan moo tax su moom doomu aadama mu bëgg indi ci àdduna te doomu aadama day juddu di yëngal di màgg tànk tànk tànk yi di yegg ba muy àgg ci mag ak ay ba asidoo ba ak ay sanatan ba mu àgg ko mag li muy dundee ci kaw suuf meñ suuf a koy meñ day sax di màgg tànk tànk ci ay fatwa lay lay jaar ba muy àgg fatwa yooyu xam nga ne suñu borom kon fondement la adduna juróom benn fan maanaam qad xalaqtuhu atwaan tawru yi tawru mooy lan ci ba évolution atwaan te tawru mooy muy évoluer daa ci ay étape ay yàlla xanaa bu ñu nee gis xalaat sama wax na suñu borom bi leen asamaan yi suuf yi kon booba jant baa ngi ci biir dafay yàgg bu waxee yow mu mu tekki moo ni si jant bëccëg si jant bi fenke jëm ci sox te loolu boobu amul loolu boobu jant amul ndax sama waat man dana wax asamaan yi ak suuf yi kon da nga xam ne kon beneen ay yaan yeneen ay yaan la ci jublu boobu la bis yi ñu xam kon bis yi yee ñu ko mën a dégg foofu yi waaw yaakaar naa question bi moom dafa lu intéressant lu avant solo waaye dafay laaj tànk bu yàgg ndax xam ngeen bu ñuy xalaat sama waa ji wax la ICR sama feear ak archi alors archi kon lan la ndax buñ bindagul asamaan yi ak suuf yi asamaan kon archi lan la ak fu mu nekkoon ak lu mu doon ak ndax bokk na ci asamaan yi ak suuf si ci diggante boobu la nekk ci lii bind la bokk wala wala bokku ci te kon itam buñ ne ay yàlla itam te ay yemul ay bis li ci xam mooy jant buy sànq parce que boobu bindagul asamaan ak suuf yi mu ne bind naa ko ci juróom benn fan ñu xam ne kon ba tey yee war na seet kon fan yooyu fan yi lan la nan la demee loolu mooy ñu wax daan wala beneen daal circonstance bu mu doon rek yow loolu ndax ba tey loolu dëgg la alquran dañ ko war a gistu dañ ko war a jàng dañ ko war a leerloo ci alxuraan bu mu demee ba ne loolu daf may indi kon ci waxtaane alxuraan ci boppam te kon loolu danañu indi ci marche te kon danañu indi ci li ñu doxal lépp ci awiyaaw yi ne gis nañu ah ak nañ ko gisee ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci arche ak na waxee suñu borom ci diggante mag aas ba mu ko bindagul ba mu ko bindee ba noppi ak ba mu koy bind ay yaamu laay nag dal nañu indi nag moom it waxtaan yu bare bare bare kon daal yaakaar naa ne gannaaw temps bi jeex rek ñun ñu kii